أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله وعن زرار الخلق والرزايا والجنة والشيطان والبلايا مع البلاء ومع الأمراض وبالرداء تنخاد لي أخراد بها دخل في أمر فلا يكون خائبا ولا منسفلا وجعل كلامي راسدا ومسدا wa fikrati nawi wa qalbi an sida mbokki jullit yi mbokki taalibe yi seetaan ci waxtu yi seen télévision Thiès bi ñu leen di nuyu fi ñu leen baaxoo nuyoo di leen ziara waaye di jiital ci nuyoo bi ak ziara bi nag Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal yàlla na ko fi sunu borom doole yàggal doole ak wéram li mu yéenee liggéeyal Serigne Touba maamam te ànd ko njabootu Serigne Touba gi suñu borom defal ko ci lu kawe ak njort ko ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadou Moustapha sëñ Modou Mbenda toogee xilaaf ak suñu maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiin si Moussa Fall yàlla na fi yàgg lool moom itam moo ki màggam noo ñu mbokkal njabootu sëñ maam Cheikh Ibrahima Fall gépp di ci ziar bu baax suñu buntu ci maam Cheikh Ibrahima Fall muy Cheikh Mamadou Fallilu moom sëriñ Abdou Sakoor na fi yàgg lool suñu borom dolli ak wéram ñaanal sëñ Cheikh Fall ngondam magam ju baax ji di ko ñaanal bu baax sëñ Moussa Fall mi nga xam ne fi nekkal maam Cheikh ci Thiès. ay ziar bu baax itam sëriñ Mbàkke présidence moom Cheikh Modou Safal waaye teg loxob sët yi ci nuyoo bi nga xam ne moom laa leen di nuyu ci Cheikh Serif Assane moom sëñ Cheikh Fall Baye góor mu jàll ko ci mbooleem ñi mbokkal maam Cheikh Rofal yépp waaye itam di nuyu mbooleem kilifa diine yëpp rawatina euh, kii fi nekkal borom Touba muy sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba Touré ñu ngi koy ziar bu baax a baax ko jox waayam ak njabootu sëriñ Saliou Touré gépp xam naa nañ ci dellusiwaat waaye di walaay boobu ñu nuyu Cheikh Mamadou Amin moom Serigne Mbacke Madina ñu ngi koy ziare di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi dolli ak wéram ñu ziar bu baax a baax a baax Serigne Tako Mbacke mu Cheikh Mamadou Murtada mu ngi koy ñaanal lu yàgg moom itam ak wér ñaanal Serigne Daouda di ko ñaanal Serigne Abdou Karim mu Serigne Modou Fatou Xëri comme yàlla ko fi doole yàlla doole bàyyi doole ak dundam ak wéram noonu lañ koy ñaanale bu baax itam Serigne Bachirou moom Serigne Sobeeru Mbàkke moom maam Cerno Birahim waaye noonu lañ koy ñaanale Cheikh Mouhamadou Mourtada moom Serigne Cheikh mu Serigne Modou Faty Khary ñu ngi koy ñaanal bu baax itam ah, Serigne Khadim Gaydel borom daam ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi jàmbaari Serigne Touba jooju te yàlla dolle dundam ak wéram mu leen liggéeyal Serigne Touba mu jëf ci lu kawe ak njot koy ziare di ziare Serigne Assane ka Nasru di ziare bu baax soxna say bata ay dara moom Serigne Abdoulahi Yaqin koy ziare ziare soxna Salman ak njabootu Serigne Abdoulahi gépp di ziyaara bu baax itam mbolem kilifa diine yi sekkal rew mi yeb yeb rawatina serigne Mbaye ci Mansour ci khalifa tiawon ziyaar bu baax a sekkal ak fële ci Jaasaan way di ziyaar baax itam njabootu Cheikh Abdoul Aziz Aïdara di ziyaar bu baax sëriñ Assane Seck Canaba nga xamanteni ni sous raison bi mbolem kilifa yi way itam ak mbolem ñun bokk rew mi yeb di ñaan kilifa diine yeb yàlla na leen fi yàlla bàyyi doli seenu dundu ak seenu wér ba ñoom ñëpp nu bokk fi yàgg ba li ñu yéenee liggéeyal toolub lislaam sunu borom defal leen ci kawe ak njot tey nag ñu àndaat ak yéen ci jataay bu ama am solo muy spécial plateau boo xamante ni dañ ko ànd ak suñuy jëwriñ yu tedd fi euh, ci jiitu muy Serigne Ahmadou ñu bokk ak liggéey bi fii ci daara ji waaye nag ñu ànd ko suñu jëwriñ ju tedd itam ju baax lool nga xamante ni mooy sëriñ Aline Diop mi nga xamante ne mooy jëwriñu mboolem fédération xidmatul xaddim waaye di jëwriñ itam jalibatul maraaxib fee ca Daaru Salaam tey ñu boole jataay bi ñaari jëmm yi fas yéene waxtaan ne nag ah, jëmm ju tedd joo xamante ni incha allahu moom lañu jox jagleel jataay bi muy Serigne Saalihu ture waaye nag balaa ñu dugg ci tàbbi ci biir jataay bi nag dañuy jox sëriñ Ahmadou si xam naa mu nuyoo ah, mbooloo mi su ko defee nag ñu jox Serigne Aliou xam naa Euh, noonu lañ ko bëgg a tàmbalee jataay bi comme si Ahmadu ñoo bokk jataay bi waaye boo nuyoo ba noppi ñu jox sëñ Alioune mu nuyoo su ko defee nag ñu tàbbee yéen ci jataay bi bisimilah. alhamdulilahi rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala saydina وخير خديم وسلم تسليما سدد لساني نوير جناني صفي عماني وزيد براهي وصرح بها صدر من تعلم وصرحا به لا تخترين الظلم بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله تعالى نوي نوي بولم كو خامني ياغي جانلوك سين تيليفزيون تشيستي تي seen émission spéciale bi ñu leen defal di ziare mboolem koo xam ni am nga tomb ngëm yàlla waaye di ci jiital Cheikh Mamadul Muntaxa ñu ko sëñ maam góor waxee léegi rek ñun amuñu sañ-sañu yëkkati genn kàddu te ziaruñu sunu jëwriñ ju baax jooju sunu kilifa googu di ko ñaanal yàlla guddal fanam waaye yàlla sunu borom yokk wéram yàlla ko ba li mën naa leen islam bi naa leen ko Cheikh Ahmadou Bamba yàlla sunu borom kattanal ko lépp mu fekke ko ak mbooleem jëwriñam yi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaawam Cheikh Mamadou Bachir ak euh, sëñ Modou Mbend ñu ñëpp ñu ngi leen di ñaanal seen taxawaay bi ñu taxaw ci ginnaaw sëriñ bi waaye tamit di ziar bu baax euh, Cheikh Amadou Bamba Touré di ko ñaanal moom mi fi yor sëriñ bi euh, di ko ñaanal yàlla na ko yàlla suñu borom kattanal ba yan bi nga xam ni yan nañ ko ko yàlla sunu borom kattanal ko ci barke Cheikhul Khadim ba mu matale ko ba yaakaar ji yàlla bu mu tas waaye ak mboolem rakkam yi nekk ci ginnaawam yëpp rek yàlla sunu borom gën leen taxawu ba yi yaakaar ji murid yi am wala yaakaar bi sëriñ bi am ci moom yàlla na ko yàlla sunu borom kattanal di nuyu bu baax mboolem kilifa yi nekk ci dëkk bi nuyu nga leen Cheikh Maodo Lamine Cheikh Cheikh sama Lamine Mbacke Madina mm-hmm. uh, suñu sëriñ la waaye suñu xarit la waaye di suñu soppee mm-hmm. ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla guddal famille ak suñu Xaadim Lo Gédeel moom it di suñu xarit waaye di suñu sëriñ waaye di suñu soppee ak mbooleem kilifa yi nekk ci dëkk bi yëpp waaye di nuyu bu baax jëwriñu uh, sëñ Alioune mi nga xam ni mooy jëwriñu xidmatul xadim Euh, di ko ñaanal liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci dëkk bi yal na ko Serigne Touba gis waaye di nuyu mboolem dawaayir yi nekk ci dëkk bi yëpp ndax ñooñu ñoo fi sàmm liggéeyu Serigne Touba bi fi ñu toll ci dëkk bi ndax ñoom bu seen yëngu bu taxawee rek daanaka day mel ni yëngu-yëngu dootu bari ci yoon wi waaye ñoom ñu ngi yëngal ak yëngal ak feeñal liggéeyu Cheikhul Khadim ci seen i taxawaay kon ñu ngi ñaanal mboolem jëwriñ bu yor daayira rek ñu ngi lay ñaanal yal yàlla suñu borom gën laa taxaw di la nuyu nag yow sëñ maam di la ñaanal bu baax a baax <laughs> ah ni ngay idaalaa jalsa bi nga juban taxawee jal jataay bi am na solo lool ñu ngi lay ñaanal yàlla suñu borom gën a ak li nga ay coono yëpp xam nañ ko waaye teewul mm-hmm. bu ñu la woowee ci liggéey bi rek nga daal di bàyyi lépp loo doon def di nuyu ñëpp rek xam naa incha allah dañu leen delloo kaddu gi rek ngir yëkkante waxtu yi incha allahu rabbi bu baax a baax a baax a eh, yu baax a baax damay wax ne damay sawar toujours di toogee yow jataay ci émission lool lool lool lool damay am mbégte ngi ñaan su fan gudd yow itam te mu la nga nuyu aouzu ah. min asheytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim wala hawla wala quwata illa billahi alaliyi mm-hmm. alhamdu wa shukru maan wala di abdillah mm-hmm. mbokki jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mm-hmm. noo ngi nuyu ñiy teewlu ci waxtu wi sunu jotaay bi di tàmbalee nuyoo bi ci sunu kilifa ak bopp di Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mi nga xam ne moo jotaay bu tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaye di nuyu mbooleem njabootu Serigne Touba gi yëpp di nuyu Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbend mi nga xam ne moo toogee jotaay bi maam Cheikh Ibrahima Fall di nuyu mboolem kilifa yi diine yëpp ak mboolem julit ñi ak mboolem taalibe yi di nuyu nag bu baax Serigne Cheikh Amadou Bamba Touré mi nga xam ni tey la fi waajuram mu baaxoo bàyyi muy Serigne Saliou Touré ba loolu sax moo waral suñu jotaay bii ngir waxtaane ay mbiram ngir gën ko fàttaliku ak gën a mën a jariñu ci ab liggéeyam kon nangis ngi siyaare Serigne Cheikh Amadou Bamba Touré ak rakam yépp waaye di beral nag ab siyaar ci biir njaboot gi Serigne Khadim Touré mi nga xam ni bokk na ci ñi nga xam ni tax na jotaay bii ñu mën koo amal ci ab soññam ak maanaam bëgg gum bëgg liggéey bi kon ñu ngi koy siyaar baax di siyaare Serigne Mame Gour Thiam mi nga xam ne mooy taxaw liggéey bi ànd koog Serigne Sy sama yori yu baax yi nga xam ne ñoom ñaar rek doyoon nañ fi ndax kii ñu bëgg a waxtaane yéen xam hmm. ngeen ko bu baax ah, te jëflante ngeen ak moom bu baax a baax kon yéen yéen doon ngeen sëkk rek ci taxawu ko kon nag ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di rafetlu seen taxawaay naka jekk ci liggéey bi rawatina màggal gi taxawaay yi ngeen ci am hmm. di fee dalal mbokki taalib di ànd ñoom di yaatal liggéey bi kon seen taxawaay ci dëkk bi murid yëpp gis nañ ko kon yàlla suñu borom fay leen ngeen fay di siyaare baax mbooleem mbokki taalib yëpp di siyaare yaa ngi ñuy déglu di siyaar waa Thiès TV nag kilifa gi sëriñ Alaaji Malick Wade di ziare sëñ Seydou mi nga xam ni mooy technicien bi ne ci régie bi ak soxna roq yi ak mboolem ñi aju ci kër gi yëpp jërëjëf sëñ Aliou jërëjëf macha allah euh, ndeysaan néew bi am na solo lool lool lool bëggoon naa bi sax ci kër gi ma koy faral di mujj waaye gis nga nga jiituma ci ndeysaan noonu rek la élargement yi ñu ngi koy beral ab nuyoo bu baax a baax di ko cëral euh, cëru boppam ci ñaanal ko yàlla ndax wax dëgg yàlla moom yitteem jëpp mooy li ñu nekk rek moom pas-pasam ak pësséefam mooy bëgg lu baax kon nag moom El Hadj Malick ñu koy ñaanal bu baax waaye bu ñu ko ñaanalee itam day mel ni ñaanal nañ mboolem personnel bi waaye di ñaanal bu baax itam ñaar ñoo xam ne suñu Amadou si def leen a ñu nekk ci pàkkub Tiwaawan may sax ñu mel ni soxna maam Fatim Mbacke ak soxna Aïda Sy mu maam Abdou Aziz Sy Dabakh ñuy kóllëre ba réew mi àdduna réseaux sociaux yi ñëpp xam ni ñu yàlla de leen a boole maanaam boole goo xam ne ci kóllëre mooy kóllëre gu dëgër ba tey jii ah, xawma démb rek Baye Fall yi ak mboolem daayira yi nekk ci ahlu Tiwaawoon maanaam dañoo dajaloo maanaam bay Tiwaawoon dem ca armeel ya ànd ak ñoom liggéey ba ci nettoyage yoo xam ne ndox dëgg yàlla dundal nañ fa loo xamante ni àdduna sépp ñu ngi koy sagoo ñu ngi koy bëggee di ko kontaane kon diggante boobu ñu ngi ñaan yàlla man na ko yàlla gën a saxal monsieur monsieur Ahmadou yal na ko yàlla gën a yàggal sëñ euh, Aliou li nga wax rek moom ci lañ fas yéenee tàbbi tey yàlla daf ñoo nëbboon koo xam ne daaw ci waxtu yi day sunu lépp euh, lu nu am mën nañ ko ci suñu digganteeg Sëñ Tuubaa nañ koo ko sant muy Serigne Saliou Touré mu jëf suñu digganteeg moom ak Sëñ Tuubaa loo xam ni tey Sëñ Ahmadou si buñ jëllu si waatee euh, bis bi nga xamante ne moom la fi bàyyi ko woon moom Serigne Saliou Touré ñu fas yéene ko dundalaat ci télé bi loolu Sëñ Aliou dañ la koy sant yow ba noppi ndax yow def nga ci yitte joo xamante ne waxuma ne ci àgg ci sëñ xaadim waaye sa jëmmi bopp rek mënees na la cee sant gërëm la ndax lu jiitu tey yaa ngi dundal mbirum sëñ Saliou Touré yaa ngi dox ci mbirum sëñ Saliou Touré mooy la ko taxoon a jóg te yëkkatiwoo ko ba sëñ bi jël ko indi ko Cees loolu mën na noowaat ci su muy diggante xam ci xam bu wér ni amul luñ ci delloo gannaaw lu di ko gën a suuxat muy gën a jëm kanam te yaakaar naa loolu mooy li nga xamante ni mooy li nga xamante ne moo gënal sëriñ bi te loolu ci lañ nekk waaye suñ si ak Touré fàttalik ko njàmbaaram nga rek lañuy ñuy indiwaat ak baaxam nga ak doogoom nga itam ak tamit kenn lam nga siñ Tuubaa ak beram nga sëñ Tuubaa su coow li coow li suñu amul si suñ si ak Touré mun ti mus si jël sëñ Tuubaa tëkkale ko dara ba mu dendale ko dara baat bii sëñ sëñ sëñ Muntaxaa di jottali jamono yi ba mu siiw loolu mu naan li ko boroomam jaral mosu koo jaral ku yàlla bind baat boobu boo ko Serigne Saliou Touré di wax yaakaar naa 2015 la toog na ci fulki bi wax ni fi ko boromam fi mu jaar fi mu jaar borom la mu jaar la ci diggam ak moom maanaam amul ku fi ku ku ku mbindeef mu suñu borom mos a jaarale foofu ku dul Serigne Touba waaw kon nag loolu war naa tax ñun tam fu mu toll nam bere woon nu koy ber di ko kennal ak di ko sant ak di ko njukkal moom Serigne bi xam naa nag buntu bi ñu ci tàmbalee si signal yi daa koy ubbi ngir maanaam jëmmi Serigne Saliou Touré ga fàttaliku yàlla gi mu yàlla ci mboolem àdduna waaye rawatina waa Thiès. barakallahu jërëjëf Serigne Mame Gor am ñu ngi am mbégte bu baax ci jotaay bii ni ñu ko amee woon ci jotaay weesu yëpp rek wax nga ko li tax ñuy taxaw ci mbirum Serigne Saliou Touré taxaw ci mbiram di ko fàttalente mooy fàttalente mbirum Serigne Touba. Mm-hmm. ndax dañ ko tànn indi ko ci dëkk bii ngir jëmmi Serigne Touba. ngir mu liggéeyal Serigne Touba ci taalibe yi. àggale waa Cees ci yàlla mhm. te bi mu dikkee fii warul Sëriñ Tuubaa mhm. ba noppi nag mu jaayante ak Sëriñ Tuubaa jaayante boo xam ne ku nekk Cees teg nga ci sa bët mhm. ndax mbooleem buntu àdduna yëpp daa ubbikoon ci moom Sëriñ Saliou Touré jekkoon na ci luy jumtuwaayu àdduna ci diggante kër ak otoog mbooleem matériel àdduna yëpp jekkoon na ci mu am ci lu dul jeex waaye bëtam mus koo xool mus la sàkku dara mus la bëgg dara daa bàyyee woon nag léppam Sëriñ tubaa loo ko indil maanaam loo xam ne sax bàyyikool ci lu leer sax du ko nangoo jël nga xam man dégg naa nettali boo xam ni doomam Serigne Saliou Touré Mbène moo ko wax ay nit yu ñëwoon indi xaalis bu bari ci këram wax nañu boobu matoon na ñaari milliards xamalu ko waaye daal tudd nañ ci ay milliards bi ñu dikkee indi xaalis bi sëriñ bi ba mu leen déggee ñuy ñëw rek daa jug fattu ci biir dem ba ca néegu biir ba am na ca barab boo boo xam ni salle demee la mu dugg fa tëj buntu ba ngir bañ a gisee gaa yooyu ngir bañ a laal seen xaalis boobee nettali na ni la nekk tëju fa gaa yi toog di ko xaar mu yàgg fa yàgg fa yàgg fa ba tàngooru barab ba jàpp ko mu nekk fa ba sëñ Tuubaa feeñu ko foofoo ne ko Saliou ture ku la bëgg man la bëgg Saliou Touré ku la bëgg man la bëgg ku la bañit man la bañ oh. kon ci daw pañaxitu àdduna mm-hmm. ak lépp luy taq ak lépp luy yàq diine mm-hmm. ak lépp luy maanaam indi ñaaw ñaaw sëñ Saliou Touré da cee da cee doonoon jàmbaar te loolu yombul ndax am am ak alali àddina ak ku yëkkatiku doomu aadama da ko bëgg doomu aadama dafa xër ba wax nañ ni sax yonent bi nee na doomu aadama ko joxoon ñetti xuri wurus sax dina wut bu ko bu ko ñeenteel waaye sëñ Saaliw Ture moom loolu bokk ci ndax lépp ubbikoon na ci buntam mu mën a am lu ne mhm. waaye nag lépp da koo delluwaat rek ci liggéeyal Serigne Touba nga xam dundam gépp da koo jeexal ci wut lenn rek mooy jëmmi Serigne Touba daa bu sa wax ne Serigne Touba kenn musu koo xam ci bëgg lenn lu mooy yàlla ak rasulullah yi moom itam Serigne Touba noonu la ko toppee woon nga xam mhm. kon kooku képp ku ko xam rawat na nga bokk ci lu euh, luñ ko dénkoon ndax cees ku fi nekk di am murit Serigne Saliou Touré lañ la dénk daana waxit ne yowmal xiyam bépp taalibe bu dëkk cees chaque taalibe sëñ Touba man la koy laaj bu ma ko seedee mu seede ko bu ma ca maanoo mu maanu ca kon ku dëkk cees ku nekk rek te xam loolu kon na nga xam ni kon sëñ Saliou Touré mooy sa delluwaay kon tax na mbiram amuñ ci sago mm-hmm. ndax xam ni moom lam doon jàngale saa bu gën a yaatu ci nit ñi ak njub gën a daj kàpp sëñ tubaa gën a am li mu bëgg mm-hmm. ndax ku ko mm-hmm. topp doo doo doo aw ci wenn yow dul yoonu sëñ tubaa gërëm ndax li sëñ tubaa bëggoon ci la nekkoon di ci nekkloo taalibe yi ci la nekkoon guddi ak bëccëg xamal taalibe yi lu baax digal leen ñu jub digal ñu ñuy jàng alxuraan di jàng xasida digal leen ñuy jaamu yàlla ba tey murid bu dëkk Cees bu nekk am na ci sëñ tubaa loo xam ni mm-hmm. maanaam jafe nga fekk ci beneen murid bu dëkkul Cees kon kooku mooy sëñ Saliou Touré bàyyi ko koy maanaam bàyyi ko woon fi ni ki tey nga ni bis bi mujj ci weeru sapar ci guddi la fi bàyyi ko bis bi jëkk ci weeru gàmb mu fekki sëñ Touba keroog ba mbir ma xewee ba ñu ko yëgalee Cheikh Mouhamadul Muntaka yàlla fi yàgg te wér daa wax ni kon day moom tey lay fekk Serigne Touba sëñ Touba koy teeru nga xam ni keroog bis ba ñun ñu fa teewoon ñëpp gis nañu ba mu ba mu agsee Touba mboolem Touba gépp yëg nañ ni jëmm a ngi nii joo xam ni murit yëpp yëg taxawaayam mm-hmm. ba keroog Touba daa fees dell kilifa yëpp génn mm-hmm. ñëpp yëg dem ak sëñ Saliou Touré ngir lim taxay woon ci yoonu murit kat doom gu dëgër gu am solo mm-hmm. ak njub ak sell gu nekkoon ci moom ba ñëpp xam ko nga xam ni day mel ni yoonu murit dafay def cee taxawoon tafa taxaw taxawaayu maanaam kuy garde nga xam ni daw lu ci bokkul bu ci duggee da ñëpp dégg kat doom nga xam ne amul kenn ci war a wax luy jariñ mhm. amul kenn ku muy ku muy bàyyi xel ci li sëñ tubaab bëgg li mu war a wax lay wax sóorul ku ko jàpp wala ku ko bàyyi nga xam ni dafa dog woon ci sëñ Tuubaa mhm. loolu nag keroog mu wàccee liggéey yoonu murid gépp ko yëg bisub keroog ñëpp ko seede keroog bañ koy taxawu mhm. sëriñ Amsatu moom si Abdul Ahad Mbakke sëriñ Abdou Samad kilifa yi fa teewoon keroog seen seere ba la muy gudd gudd ñaari baat yi tënk na ko te mooy ab jullit xaqala ngi nii waaye am murit saadix mi ngi nii muy Serigne Saliou Touré kon nag bis boobu mhm. tey jii bu dellusiwaatee tey di benn bi jëkk ci weeru gàmm mhm. muy yemook am atam keroog bi fi bàyyi ko ak nëgëni ñu day waat fi di ko waxtaane kon day mel loolu lu yàlla la te it yaakaar naa ni waxtaane mbirum sëñ Saliou Touré day jariñ ab tale bi lu bari ndax moom dundam gépp xam-xam la dundam gépp royteef la mm-hmm. ko ñuy roy la ci wet yépp kon sëriñ Saliou Touré mm-hmm. jëmm la joo xamante ni la sëñ Tuubaa bëggoon ci am muritam mm-hmm. moo nekkoon ci moom moom nag dëgg-dëgg nu mel rek ci mbaax rek maanaam séntu woon nañ ko ci moom ndax wax nañ ko sànq ci ab jotaay daa bokk ci Euh, askan wu tedd mm-hmm. bokk ci askan wu maanu wu sell ay waajuram doonoon ñu jaayante ak sëñ Tuubaa liggéeyal ko ba làq ngërëm mu feeñ ci boobu diggante mm-hmm. waaye mu feeñ ci anam bu doy waar boo xam xamante bi nii waajuram wu góor am na lu xewoon ci diggam ak sëriñ Tuubaa mm-hmm. ci ay mbir yu biire yoo xam ni keroog bi mu fayee jamono daa wax ni sama doom ji sëriñ Tuubaa moo koy tudd nga xam ne loolu keroog yéem nañu bari ndax booba sëriñ jóge na fi ci zaahir waaye nag ku tedd ki sëriñ Saliou Mbacké wax nañu keroog moo fa teew ba mu ñëwee moo ko jox awtu tuddee ko saaliha muy mu tedd wa mhm. bi mu amee juróom-ñaari at mhm. ñu jëbbal ko ko mu ànd ak moom laxasaayu nga xam ne wax naa ne Serigne Saliou Touré mbiram dafa daw yaram ah. ndax juróom-ñaari at yooyu mu am tabbi ci loxoy yu Saliou Mbacké mhm. ba ni mu xëyee dem fekki Serigne tuubaa ci ci ci ci ci ci Touba kenn xamaatul benn yoon bu mu fi wanee ginnaaw delluwaat ci ay kër bokkam du dem gépp lu koo jeexal takk ci liggéeyal Serigne Touba diggante boobu nag ko baax war a jaar jaar na fa dafa jàng alquran jàng xam-xam soobu yoonu tarbiya liggéeyal sëñ tubaa nag liggéey yu metti ànd ak sëriñ Saliou ca ca ca tàmbali ba ca daara yu tumuranke ya nga xam ne boo añee doo reer boo reeree doo ndékki mu laxasaa yu ànd ak sëriñ Saliou nekk ci àll bi taxaw dongo yi di taxaw tool yi di bay ak di jàng ak a jàngale nga xam ni daan daana nettali sax ay méthodes yoo xam ne boo ko déggee yow sa rangoñ day tuuru ci ay tartar yu mu dund diggam ak maanaam liggéey boobu nga xam la ko defal sëriñ tubaa ci loolu la nekk ba ci Mbàkke yeble nag xamal ko ni ko nag la nga doon wut am nga ko te mooy am nga ngërëmul yàlla subhaanahu wa taala <laughs> waaye nag dénk naa la donga yi te bul ma fàtte Baye Mor Sall la yónni woon bisub ajjuma la woon mm-hmm. ba loolu amee nag ca at ma ca topp rek ci la si Abdoulahat wax ni kat doomi Sëriñ Tuubaa yi bëriwuñu mm-hmm. waaye kenn moo waroon na féete Thiès nekkal fa Serigne Touba mm-hmm. waaye ginnaaw bëriwuñ nag nu seet kenn koo xam ni dañ ko des na ko mën a watee suñu jëmm ngir mu nekk fa nekkal fa Serigne Touba àggale waa Thiès ci yàlla <laughs> ci loolu lañ ko tànnee andi ko fii ci dëkk bii ci tànneefu sëriñ Abdoul Ahad Mbacke ak mboolem ay rakam sëriñ Saalihu si Abdou Khadir ak sëriñ euh, Mouhamadul Mourtada Mbacke ak seeni mm-hmm. jigéen kon loolu moo fi indi sëriñ Saalihu mm-hmm. Touré mu dikk fii nag tàmbaliwaat beneen liggéey mm-hmm. mooy liggéeyam nag àgg na ba noppi am na ay ngërëm lakk na mboolem li am njariñ ci yoonu murit ndax ngërëm mooy mooy mooy diplôme yoonu murit sëñ Tuubaa dafa wax ni murit lu mu mën a am amul ngërëm rek amul dara isil muridu laa yuridu abada xayra rahmanu xayra ridal rahmanu xaysu xasada sëriñ Saliou Touré ba mu amee ngërëm ba noppi ba doon ko àgg ca àgguwaay ba ñu tànn ko nag ngir mu àggale waa Thiès ca yàlla kon loolu mooy liñ ko fi indee woon mu ñëw Thiès am fi ñeent fukki at ak ñett am na fi ñeent fukki at ak ñett muy liggéey bu yàgg boo xam ni lépp loo xam ni maanaam waroon na ko ci diggante maanaam diggante ak taalibe yi ngir ñu xam ngir ñu jariñu ngir ñu yegg defal na ko defal na ko waa Thiès ba ba ba ba liggéey bi àgg foo xam ni mboolem àdduna sépp teg nañ ci seen bët ndax muy di cees yew nañ ci sëñ Touba kennal nañ ko nangu nañ koo liggéeyal ba defar na fi mbooloo ay mbooloo ñoo xam ne tey jii sax dañoo bokk ci ñiy defaree kon Serigne Saliou ture ah, dañ koo ameel njukkal jëmm ngi noonu joo xam ne dañ koo amel njukkal ci wet yépp loolu moo tax nag bisum bisum tayam bii démb ci euh, bi ñu xëyee ñu jot ndigalal soññee ngir ñëpp lu waay mën ci alquran mu jàng ko lu waay mën ci xasida mu jàng ko salaatu ala nabi ngir defal ko addi Serigne Saliou ture waaye tey jii nag ñu ñëwaat ci plateau bi nag ngir waxtaane ko waaye nag ngir ñaan suñu borom dolli ay man dolli ay leeram waaye nag li mu bàyyi ginnaawam ci ab liggéey wàcc ko ak njabootam lépp itam suñu borom may leen kattan gën leen a dëbb ay xéewal ba liñ bëgg a def lépp ñu mën koo yeggale fu jéggi jéggi dayoo kon daal yaakaar naa ci tàmbali bi mënees naa ubbee kaddu yooyu incha allah <laughs> euh, bàyyi ba ba jërëjëf jërëjëf sëñ ay lay ñuy am mbégte bu baax a baax a baax a baax euh, ci tam ni nga ubbee kàddu yi ci jëmm ju tedd ji Serigne Saliou Touré muy maanaam euh, ndeysaan fàttali mbokki taalibe yi maanaam fi mu bokk taarixal ko sëñ Cheikh te loolu lu am solo ci waxtaani nit ku baax la ñu xam ni cosaan ni Serigne Saliou doon na wax naan doomi soxna la te kenn rawuma loolu Serigne Saliou Touré ko nga xam ni moom fi mu taxawoon tegoon fi tànkam moom Serigne Saliou da koo xam bu wér a wér a wéroon mooy kon mu ngi noonu seen spécial plateau fàttaliku Serigne Saliou Touré tey kon moom faaw rek da ni sëñ Ahmadou def rek ci lañ jëm dégg nga sëñ Ahmadou ni mu tàmbalee sëñ <laughs> Aliou buntu bu am solo la ubbi ci sëriñ bi nga xamante ni fi mu hôpital bi war a jaar muy jàng ba ba ni ar ñu yar la ba nga ni nër tërbiya la tarxiya la tasfiya la defar la ba nga mel ni nga war a mel nga xamante ne dem na ba ndax nit ki dem ba def la ni boppam yar Sëñ Saliou ku mel ni Sëñ Saliou Mbacke yar la def ba def la ni boppam ba bu ñu doon tànn ku mel ni doomi Sëñ Tuubaa nga mate ku sëkk loolu sëñ bi mooy la Sëñ Saliou la si bañ joxee Sëñ Saliou Mbacke Sëñ Saliou te daa su tukki ci moom rek li newoon ci moom lépp mu def ko ci moom moo tax bi ñuy tànn ñu tànn ko jataayu Sëñ Tuubaa kon loolu xam naa lu dinga nga am ñu kàddu yoo ci mën a doon waaw jëf euh, sëñ Maam Góor waaye tamit jërëjëf a Alioune ci ubbi bu am solo bi nga xam ni ubbee nga ko jataay bi mm. mu nekk ubbi bu am solo ndax it euh, wax nañ ko sànq man araqal wali yu fakk am na ma ax yow mm-hmm. te ñun wax dëgg yàlla tuuti nañ ci seede ni sëñ Saliou Touré walliwu la waaye gëm nañ ñun ab murid saadix la moom mm-hmm. te murid saadix am na lu ci sëriñ bi waxoon ci garaatam na mu toll waaye ay nit yi yàlla yoo xam ne wóor nañu ni ñoom ñu sell lañ ñu ragal seen borom lañ ñoo xam ne bokkuñ ci yoon wi mm-hmm. seere dañ ni moom walliwu la kon mën nañoo sukkandiku foofu rek ñu xam ni bokk na ci wàllu yu yàlla yi bokk na ci ñu am cër ci yàlla suñu borom minal muminina rijalun saddaqu ma aadallahu alayhi fa min um man qada naabahu wa minhum man tasiro wa ma wa ma badaloo maanaam li yàlla suñu borom wax nii am na ci gaayu yàlla yi ñoo xam ni lañu ñu ak seen borom ni ñu wàcce leen ci kaw suuf ngir ñu taxaw la seen borom digal nee na ba ñu wàccee ci kaw suuf waruñu seen borom waaye seen borom waru leen mooy minal muminin rijalun saddaqu ma ahadullahu mm-hmm. alayhi mm-hmm. kon Serigne Saliou Touré dafa bokk ci minal muminin rijalun yooyu moom it ba mu ñëwee mm-hmm. ah, fa mu war a jaar yëpp ñu jaarale ko fa ni ko Seydina Alioune waxee noonu la demee ah, gis nga Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla naree wàcce ci àdduna ngir jox ko mission bu toll ni mu bi mu yor mu nekk rahmatan lil mu war a ilif àdduna bépp yàlla sama borom dafa am fu mu ko jaarale jaarale ko ci ay jaaruwaay mooy jàngal ko mm-hmm. am fu ma jaar moom ci mm-hmm. jibril ca xuntuwaak yu deme noonu mm-hmm. waaye tamit am ko testé ko ci maanaam lépp loo xam ne sadarul xal bi la mhm. mu dindi ko ci moom waaye def ci moom yeneen jikko ak dëgër laay goo xam ne maanaam day tax moom ci wàllu boppam mhm. fit da koy am day mën a muñ mën a jéggale nekk makarimal axlaax yooyu nga xam ne maanaam yàlla sam borom waajal na ko Seydina Muhammad nit ku yàlla ma a yónni ci kaw suuf mhm. waajale na ko noonu waaye tamit noonu la demee gis nga Serigne Touba bi muy bi muy natt ku ko war a wutu ginnaawam gis nga ni mu waajalee sëñ Modou Moustapha daf ko waajal xam ba natt ko ba xam ni kii war na ko mën a wutu mu mu wutal ko ginnaawam Serigne Saliou Touré mii jaaruwaay boobu rek lañ ko jaarale natt nañ ko préparé ko ci wàll yépp ci wàllu njàng ci wàllu tarbiya ci wàllu gune natt nañ ko ci ci wàllu diggante ak boromam digganteem mag nit ñi digganteem ak lépp loo xam ne maanaam nit war na faa natt war nañ ko cee natt rek mm-hmm. natt nañ ko Serigne Saliou Touré togg ko ba mu ñor mm-hmm. ñu soo koo indi ni ko demal ak li mu ci yàlla mm-hmm. euh, wax naa ko sànqit ni euh, dëkk la boo xam ni keneen kuñ fi indi woon ku dul Serigne Saliou Touré sa mission bi duñ mat mu Thiès bi ndax Thiès xam nañ ko bu baax a baax a baax ay boromi xam-xam ñoo fi nekk waaye ay nit ñu yeewu ñu am xel te mën a xalaat ñoo fi nekk Euh, ñu indi ko fi mu fees del jëflante ñoom ci ñëpp nag ci turux yi comme ni nga xam ne bi muy soog a ñëw nga xam ni islam bi la togg ba mu ñor doxal doxal wàllu islam bi ndax wax waxtasimu bi bi hablillahi jami'an wala tufarraqu googu Serigne Saliou Touré moom la njëkk a dox ak nit ñi maanaam dem ci turux yi kër yi nga xam ne maanaam ñooñu njëkk a séq mu doxal ñoom rafetal séq ak ñoom li nga xam ne maanaam mooy buumuk islam gi ñu jàppandoo ko mhm. ñu loolu la njëkk a def ci ñëm ci njëkke mooy ñi amoon kóllëre ak Serigne Touba mhm. te mooy njëgeen njëgeen yi ndax ñoom dafa am taranga bu séqoon Serigne Touba mhm. ak ki nga ak ak euh, sa maam Amadou Baro njëgeen moo tax boo mu ne cëpp fii bokk na ci ñim njëkk a séqal taranga bokk na ci ñim njëkk a nemmeeku rataxal seen diggante ba mu ratax mu teg ci waa Tiwaawan gii nga xam ne maanaam moom it daanaka Thiès gi daanaka ñoom am nañ fi parti bu bërëyëri mu rataxal seen diggante wàllu lislaam bi ci wàllu mbokk gi waaye mm-hmm. tamit ci wàllu dëkkandoo gi Thiénaba mm-hmm. kazalika kazalika ndax Thiès moom Thiès oh, euh, li ko li ko wër la centrale la boo xam ni centrale bu doy war la mm-hmm. maanaam amul benn dëkk bu cees bindoo ci dëkk bu bindoo nii ci wàllu turux yi ni ñu ko wëree ak it ci wàllu xam-xam ak li nga xam ne ci wàllu jàngu bi ni mu daan jëflante ak ñoom ci lu ñu xam loo xam ne moom fekk nañ ci lu bari euh, ci rafetal. Mhm. li ñuy ñàkk ñàkk ay doon ay jullit Serigne Saliou Touré fexe na ba. Mhm. nekk ak ñoom jëflante ak ñoom ci jëflin bu rafet boo xam ni. Mhm. ñoom ci seen wàllu bopp ñoom nungul nañu Serigne Saliou ah, te loolu lépp dafay nekk loo xam ni. luy leer ab yoonam la luy tax ab yoonam daal di mën a neex. waaye ñii nga xam ne tamit mooy euh, Ibaadu Rahmaan yi. ci loo xam ne fekke nañ ci du benn miraaran. du ci ci dëkk bi ak Touba yëpp. yoo xam ni ay jataay la yoo xam da ko daan séq ñoom ñoom ci seen wàll bopp ñu ko daan sakku nag ni ko ñaan ay bis yoo xam ni dañu ñëw ak moom di ko jataay moom loolu lépp mu nekk loo xam ni mhm. jikkoom bu rafet la doxee am yoo xam ne Serigne Saliou Touré sànq mhm. suñu el wax na ko suñu tegoon mm, mm, euh, daraja ji su ñu mhm. tegoon cëram suñu tegoon lépp waxtaan ne jikko moom Serigne Saliou Touré rek doy na sëkk ak barke te loolu nag moo tax mu mel nii mu mel ci dëkk bi waaye bi mu ñëwee it. Mhm. tàllal na ñëpp loxo. tàllal na mag ñi. Mhm. tàllal ndaw ñi loxo. Mhm. ñëpp la tàllal loxo. waaye tamit ah ñi ko nanguloon. alhamdulilah laa alamin jëfalante na ak ñoom jëfalante tey jii ñooñu. boo xoolee njaboot tey ñoo moom dëkk bi. ñoo fi doxal lépp loo xam ni mi ngi yoon murit. ña nanguloon Serigne Saliou Touré démb. ñoom ñooy riiral dëkk bi tey lu fi yëngu di nuru aw murit laa la wax. ñoom ñoo koy doxal ngir lan. moom ki ko indi da dul caaxaan. Mm-hmm. ñëwal eggale nit ñi ci yàlla tey doomi sëñ Tuba. Mm-hmm. kookee xam nga ne boo wonee ki mu indi. Mm-hmm. ginnaaw nga won ko ginnaaw. day mel ni gàntal nga doomi sëñ Tuba. kon ñi nangu loon sëñ doomi euh, euh, euh, Serigne Saliou ñoo ñu sey seeni doom tey ñooy doxal dëkk bi. loolu lépp nag day nekk loo xam ni. isa aradalaawo amran. hayaloo asbab yàlla su na memmir da ko da sabab. sabab bi rek mooy jaaruwaay yi mu jaar rek. waaye moom suñu ko suppeeku woon ci seen bopp rek mhm. tànn ko indi ko rek mhm. da daal di mat sëkk moom Serigne Saliou waaye ñun naw nañ ko naw koo xam ni mhm. nunu mel tey nunu mel ci ak murit Serigne Saliou Touré beneen bi toppit ñu ci baree bari ci mag ñi dañu jàppoon ni nit ku ñu indi fële rek mu ñuy jiite julli juróom mhm. ak koo xam ne tudd doom yi mhm. ak jullee néew yi mhm. fekk moom weesu na foofu weesu na foofu ñi ko jàppe woon loolu nag ñoom xëy na loolu rek lañuy ñuy jaruñoo ci seen waaye ñi jàppe woon ni ñoom war nañoo mën a àgg ni kaddu sëñ sëñ Abdou Lahad googu ni moom war nañoo mën a àggale ci yàlla ñoom jariñu ñu ne tey te ñoo ngi àgg te àgg nañu ba pare di àggale. macha allah loolee nag lu wér la moom. beneen bi nga xam it jàng naa ko ci ñëwam. moom mm-hmm. sëriñ Saliou Touré. Mm-hmm. gàntalu loon benn taalibe. Mm-hmm. taalibe bu ñu naraan bu mu masaan gis sarangoñ xonq. Serigne Saliou Touré dina sol dàllam. di ci dox di ci wax. ba sa bët weex. ci lu fekkoon na tamit cees mu nekkoon dëkk boo xam ne dëkk bu xaw a doy war la. mooy que ni. Euh, sama kër rek moo ma ñoroon waa kër sàngam waa kër sàngam waa kër sàngam loolu ma fi amoon mm-hmm. Mm-hmm. waaye sëriñ Saliou Touré moo ñëw won ñu nan la ñu war a mën a jëriñoo ci Serigne Touba mm-hmm. xam naa ngir bañ a duggaat ci beneen bunt dama lay delloo kàddu rek ñu daal di joxaat sëñ Alioune mu ubbi waat beneen bunt waaye bunt bu am solo lu bu ubbi mooy sëñ Saliou Touré doonul ab jaay li ma ko wax dëgg li ma wax dëgg la ku jàkk barab bi ni ma jàkk nit ñi def nii ngir man kooka day xam ne du ndey du bàyyi sëñ Tuuba la. dëgg la. sëñ walaay walaay sëñ Tuuba la waaw walaay sëñ Tuuba la. xam naa Seydou sax ah. dinañu dimbali. xam naa am na yittewoo yittewoo nañ vidéo maanaam 2015 bi. Hmm. fulku 2015. waaw maanaam soo ko tàppee di ko jot Seydou. xam hmm. naa di nga ñu ko mën a indil. Hmm. loolu lim ci waxtaan. surtout nañ ko jox rek. waxtaan bi rek surtout 2015 bu am solo la na waxtaan wu ci waxtaan ah. dénkaane la. Mm-hmm. waxtaan woowu li mu tax mu ñor ma mooy ay dénkaane la yoo demee ci catal wax ci sax. Mm-hmm. mu ngi ciy wax ni moom ginnaaw dem mënta ñàkk faaw nit bu liggéeyee faaw bu fi jógee maanaam mu dem ñu teral ko waaw mu dem mu dem añi kon loolu moo ci ca bi tey da ko laaj. Mm-hmm. xam naa quinze bi rek boo ko mënee la xool Seydou. di nga ko gis waaye sëñ Ahmad dinaa si dellusiwaat. ci buntu xam-xam bi. sëñ bi moom kenn rawuma. sëñ Saliou ci cadre kenn rawuma mhm. recadrement bi mu def ci biir réew mi mhm. ci tarixa yi waaw ci ñi ñu séqal diine ji maanaam diine chrétienne wala christianisme mhm. wala yeneen ak yeneen yu mën a doon sëñ Touba sëñ sëñ Saliou fi mu jaar ak xol yi ba fi mu jaar ak xol yi ba defar leen ku dul sëñ defaru amoo defaru sëñ Saliou Touré ndax fi mu fekkoon wax nga ko léegi fi mu fekkoon Thiès la sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Aliou fi mu fekkoon Thiès yéeme na lool ndax da ngay fekkoon na fi ay noon fekk fi ñoo xam ni tubaarkàlla dañ leen di daw tey boo demee seen dëkk ba toftal nañ ca baat doog a indi la fa njëkkoon a ne muy Touba Pékub boo demee indi na ci yeneen i gox loo xamante ni diggante Tivaouane ak Thiès ak murid ci Thiès ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni ci jamono si Abdoulaye xoqatali murid yi kenn rawu ci woon Thiès waaw ak naqari murid yi daan ñëw ci Sëriñ Abdou di agsi ci moom kenn rawu ci woon Thiès booba capitalu mouridisme boo génnee Touba Kaolack ngay indi Kaolack ngay indi gannaaw njaarim waaye dem na ba boo duddee Touba Thiès ngay tudd waa liggéey bi Sëriñ Saliou la loolu nag kon faaw Sëriñ Sëriñ Sëriñ Aliou buñ duggee ci maanaam mbirum Sëriñ Saliou Touré faaw ñu gën koo yaatal nit ñi déggat Sëriñ Saliou Touré gën koo xam ubbiwoon àggoon nga ci buntu bu yéeme nag ci la sëñ Aliou ci la sëñ sëñ Amadou addu waaye ba tey nga gën koo feddaliwaat rek waaw parce mhm. mhm. mhm. euh, xam lépp lu mu war a def bu ko defee ci wàllu xam-xam suñ Saliou Touré daf cee liggéey lu yaatu ndax dafa jànge ci ñoo xam ni sëñ tubaa moo leen defar ndax sëñ Mor Mbaye Cissé euh, fa jàngee foofu xam nga daara yi sëñ Touba ci wàllu xam mu jànge ci sëriñ mu dem jànge ci sëriñ Mouhamad Lamine Diop Dagana nga xam ne sëriñ Saliou Mbacke ci boppam dégg naa sëñ Abo Gueye wax ni sëñ Saliou Mbacke nee na man day Saliou Touré. Mm-hmm. ak Moustapha Mbacke sama moom. Mm-hmm. liñ xam ni ma jaaxale mm-hmm. noonu la jaaxalee keneen keneen ku leen xam ku moo doon. te seen xam-xam bépp nag. ñu ngi ko jàng njaarim loolu sëñ Saliou Mbacke yéem na leen ci mook sëñ euh, Moustapha. mu sëñ Saliou muy sëñ Moustapha Saliou. waaw nga xam ni. incha allah xam-xam bu leer te moom si saa yu turee. ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ko bokkale. nga xam ne daanaka naan xam-xam moom loolu moom rek la. du ma ko kenn. Mm-hmm. wallaahi ndeysaan loolu xam-xam rek. ñu xool si saa yu turee. damay wax ni moom xam-xam képp fan la ko. te. Mm-hmm. xam-xam rek daf la ko buur diine. ndeysaan ndax mm-hmm. nit ñi xam rek. islam ndax am bu am njëriñ. si saa yu turee da koo xam. ba noppi nag doo doon jàmm yàlla buy jëndee xam-xamam. te ba noppi nag xamal ay nit. waaw. xamal mhm. loolu ba tey di beneen wàccuwaay bu am solo te mooy xam ba noppi xamle mhm. xam nga nee na mhm. xayrukum man taallama alqurana wa allamahu ki gën ci yéen mooy ci jàng alquran ba noppi di ko jàngale moom mu nekkoon jàngalekatu alquran jàngal ay nit yu bari ba noppi di jàngalekatu xam-xam jàngal ay nit xam-xam ba noppi doon koo xam ni daf daa tarbiya ay nit ndax ab tarbiyaam sot na lu yàgg mu nekk ci daara ji di wéy di wéyal liggéey boobu ba liggéey boobu bu mu dikkee Cees moom la wéyal waye amna benen beneen moy Serigne Saliou mbake bim nekké khalifa Serigne Touba. nga xamni 1900 defe naa 90 la. nga xamni boko sété Serigne Saliou mbake nek na ci khilafa gi lu toll ci fukki at ak juróom-ñaar. légui digënté bobu yëpp na amna na bu ci yoron Serigne Saliou ndax Serigne Saliou mbake bi mu bi Serigne Touba ci liggéey bi doon khalifa général. kullu murit magal gi mu njëkk a fekke da koo woo ba mu dikk Serigne Saliou Touré mu ne ko magal gi da xamna ni gani Serigne Touba yi. mooy boroom xam-xam yi ak kilifay diine yi bàyyi ko biir réew ak biti réew ñooñu nag ñooy gani sëñ Tuubaa mm. su ma ko mënoon nag maa leen di taxawu saytu seen mbir mm. ma bëggoon nag nga féete ma ci léegi nag li nga xam ne ñett fan yi màggal gi mooy doon seeni i bernde ak seen i taxawaay mm-hmm. nañ seet ba xam bu dee kër gi li fiy ñëw ci ay xéewal dana ko man ñu fàgg ko ci li fiy ñëw taxawoo leen ko bu fekkee itam sob na la ñu xayma li leen di taxawul lépp ñetti fan yi ñaata la ci xaalis mu ko jox la ko wala wala itam ma bàyyi la yow nga wut addiya maanaam féete ba ci taxawul ma lépp muy ñetti wax yu mu ko wax Serigne Saliou Touré ci jom ji mu ne ko léegi man bàyyi lu ma féetewoo leen ñetti fan yi màggal gi mbooleem gën a Serigne yëpp kilifa yi diine yi bàyyi ko biir ak biti réew nga xam ne ñooy gën a Serigne Touba man naa leen taxawu di def seen teraanga ba keroog màggal gi jeex nga xam ne fukki at ak juróom-ñaar yi màggal gi am yëpp ci ayuk sëriñ Saliou Mbacke mhm. sëriñ Saliou Touré moo féete woo woon mboolem gani sëriñ Touba yëpp moo leen di dalal seeni berne ci liggéeyante lu ñuy jëfandikoo ak lu ñuy naan ba keroog ñuy ñibbi ci alal boo xam la daan defee nga xam ne loolu liggéey bu yaatu la boo xam ni mhm. doy na sëkk ñu xam ni kon kooku day jàmbaar mhm. loolu sëñ Sidi Gajaga mi nga xam ni bokkoon na ci ñi daan taxaw liggéey yi wax na maanaam daan demee ci bu daan dem Ndakaaru nga xam ni day yor ay camion camion pom camion clémentine camion banaana lépp da koy jënd mhm. ngir bu bu ñëwee maanaam mën koo teg ci barab moom lay taxawoo gani sëñ Tuubaa yooyu oh. mais da ngay seet boobu liggéey boobu liggéey rek bu ci yemoon kon sëñ Saliou Touré dafa nekk kon daf ko am cër ci sëñ Tuubaa ba noppi mhm. ndax fukki at ak juróom-ñaar mhm. màggal gu jot nga taxawu mbooleem kilifay diine yi ne ci biir réew mi ak ñiy jugee maanaam mboolem ci ci biti réew di leen taxawu su màggal gi jeexee mooy dikk taxaw seen kanam mooy bi ci arab nga gi boo ko déggee buy wax arab da ngay am xol bu sedd ngir fasaaxa gi ak xam gi loxo ak neex gi mu neex kàddu loolu lépp di liggéey bu rëy boo xam ne liggéey na ko Serigne Saliou ci biir xilaaf ak Serigne Touba gi mm-hmm. boole mu nekk fii ci kees nekkal ko fi mm-hmm. xel kom togg ya fa daan dem mm-hmm. gis nga at yi mu kon def fii bu ñu xëyee fajar fi la ñuy taale ci nii togg ba mu ñor yàq yëpp ci camion yi mu yebal suñu mër siise bàyyi moo sàll ñoom ñu deqi wuti wuti wuti tool ya dégg nga boolee kër diine yi nga ko waxee lu fa xew mu jug dem ci turu Serigne Touba lu fa war ci ay teraanga moo koy def mm-hmm. bu tabaski jotee muy yónnee ay xar lépp lu war ci jëfante bu rafet mu di ko def ba ñoom ñëpp ñu maasee nangul Serigne Touba jaare ko ci jëfante bu rafet bu Serigne Saliou kon dafa bari ay pàcc yu mu liggéeyal mm-hmm. loolu lépp nag yàqul woon dara na ci ak taalibe mm-hmm. nga xam ni complexe musta am ci moom wàll fu mu mas dem Serigne Touba lay feeñal oh. te lépp lu xam-xam laaj mu wane ko ba kenn du xeebe ci moom Serigne Touba te loolu yàqul dara ci pastéefam ci digganteem bi mu war a maanaam dundee Sëñ Tuubaa di ab taalibe loolu lépp nag mu boole ko ba noppi nag téewul nag muy jaamukatub yàlla boo xam ni day jaamu boromam ba noppi nag di di di di di di liggéeyal Sëñ ci anam yu yéeme te mooy kilifa gu toll ni moom ñu indi la ci dëkk ngir nekkal fi Sëñ ba noppi nag taxawu fulkul masxoon weeru koor mooy génn takk ndigam tàmbalee ko ci lal ñaari basang baa ñett ngoon gu jot muy jàng fulkul masxoon ci di way xasida yi di ko leeral di ko def di ko def ba tey jii Cees gépp bu koor jotee tey jigéen na fi waaye ñëpp ngi fàq dem wuti jàkkee murit ngir fekk si fa lu ma soxla nga xam ne ci biir juraay boobu ci la ñu xamale lan mooy xasida yi Sëriñ Tuubaa yi nan lañ ko war a fonke nan lañ ko war a warmaale bëgg Sëriñ Tuubaa ba léeg muy jàng ba yàgg ñu dégg ko mën a taxaw lu yàgg da nga ñuy tuuru ba mu yàgg mu dellusiwaat loolu lépp nag di ay liggéey yoo xam ne benn bu ci nekk rek bu ci bu ci yemoon day doy sëkk ab cër mhm. waaye teewul mu boole ko ba noppi nag te yàqalu ko dara ci yeneen wet yi nga xam ne xalifa yi fi ñëw yëpp ginnaaw Cheikh Abdoulaye ku ci nekk ànd naag yow ba nga gërëm ko mhm. mu taxawu la jàppale la ci zahir ak ci baatin taxaw waa dëkk bi mhm. kon sëñ Saliou Touré jëmm la joo xam ne daa fees dell ak i njariñ diggam ak sëñ Touba nag moom diggante bu jafe la ndax sëñ Touba ñëw na fi léegi ak fii la toogoon ak mooma ni nangam loolu lu jafe la te moom ku ne xam na ni sax man gis naa ay kilifa daan bàyyi ko Touba dikk fii di ko laaj ci mbirum sëñ tubaa nga xam ne sëñ Bass Abdou Khadir Mbacke mi nga xam ne tey mooy porte-parole yoonu murit wax na ko mhm. am na bis wax ñëw na fi di ko laaj ci ku bëgg am ngërëmal sëñ Touba nu muy def nga xam ne yu baree bari yoo xam ni day xam ne ñu xamal nañ ni kii mhm. am na ci sëñ Touba cër bu rëy rëy rëy jàkkay murit gii ci kàddoom la ñu waxee ni mhm. maa ngi leen di xamal ne weeru koor gu jot borom Touba du jóg ci jàkka ji na fulku boo xam ni daa wax ni démb bi ñuy jàng xuluk bi sëñ tubaa mi ngi fi wallaahi waaw ana bis boo xam dafa wax ne sax man ku xam laa te sëñ Tuubaa ko wax lu dëgg dem dem safara te ko ragal safara laa te borom Tuubaa ñëw na fi léegi nag koo xam da ngaa dem ba boo ànd ak moom mën a toog ci barab bu sëñ Tuubaa ñëw oh. loolu xool boobu dayoo xool fi mu fi mu yóbbu waa Thiès moo kawe ndax maanaam sëñ Tuubaa barab bu mu ni cëpp benn minute mm. mu gënal ko beneen barab bu dul moom ba at day tukki te képp ku ñëw jàkkee murit ci jamono fukku ku kon fek fekante fa seigne touba boko gisse gisee boo gisul lool lépp mu fagul nako nga xamni lool lu kawe kawe kawe la àggoon na bis ci wax ni xana xamul ni jotay fukku bi nit man na war fafal naw te moy avion di wër aduna bépp bam daj te lu tax mën a fekke benn jotaay bu mel ni jotaay bii na ci wax ni xam leen ni barab bi ku fi dugg sa borom jéggal la lool lépp nak di lo xamni téggul ci bakkan ndax mom mu koy wax da xam muy ay tawfeex yoo xam ne moo na ci fàggul si digg شتيني أباوا من كان يسري بنكة لنا حلف السمان لياتين بمثله حنست يمينك يا سمان فكفري كوكي نمتي نين لين عدن لين عدن نحكم النين نكون عندي mu ne duma ko indiwaat te ku ne xam na ne Cheikh Sidi yëpp fa mu toll woon ci wilaayatu diggante ak coono ba mu amoon ci jaamu yàlla waaye loolu la seere ci Sëriñ Tuuba ci ak mujjam xalafa samaanu la yaatiyanna bi mislihi xanisat yaminuka yaa samaanu fa këpp yi jamono day giñ ne nee na fi indiwaat ku mel ni nee naa ko waxoon dëgg ku mel noonu duutu am waaw loolu am na tey ci ki nga xam ne nooru nooru daje ngir moom sama ñaari waajur yi de bu wax ngeen dëgg amma ana fa laysa bayni wa bayna rasulillahi sallallahu wa sallam waasitatun li ngeen xam ne nag sama diggante ak Rasulullah kenn doxatu ko ba kenn du sa du sama sëriñ ku du Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kooki nag képp koo xam ne sab sëriña na nga laxasaay waat te ne nii la mel soppi ko nan nag bu baax a baax waaye ni mu soppi ko ni la nu mën a indiwaat sunu bopp nu nu waat indiwaatee sunu bopp mooy liggéeyub sëñ bi ñun ñëpp nañ ci nekk te bañ a wutal sëñ bi moroom képp ko wax ne wutal nga ko moroom xawma yow foo ñëw ëllëg ak looy wax sa borom ak looy wax rasulullah sallallahu wa sallam waaw moroomam wala nga xeeb ci lim doon def dara bisa ngi ñëw boo xam ne dañoo xamee ne du sa moroom nanu góorgóorlu nun ñëpp sax ci ak jub téere bii ñu fi jàng mboolem waxuma ki fa jàng waxuma ñu koy déglu waxuma waa dëkk bi waaye suuf soo xam ne mase jàngees na ko ba rek ndax ndax ndax kenn dana fa dem sawara wala kenn boo man ñi jàpp ne kenn fa dem sawara ca laa bokk man ndax ndax bi sëñ Tuubaa toog kon nag nanu rafet njort jamono ji yàqu na waaye duñ dem safara xasida fii ko jàngee kenn du xalak lii fii ko jàngee kër gu nekk sax di soo lakke asen ñu jàng ko fana ma ngi taalibe yi man na maa bañ a jaar ci tuuti ndax léegi wax naqari na lool ndax dëgg it boo ko waxee ñu mere la te dëgg gi it buy la sëñ bi bi mu ñëwee dafa am bu fulku sëñ bi dafa am ci mag ñi àndoon ak moom mu woo ci kenn ne ko dama bëgg nga bindal ma ko ba mbind ma daata àgg kooka daana fi soo ba nga ne dañ naa génn génn na àdduna wala génnul àdduna bi ñu ko waxee sëñ bi sëñ bi ñëw ne ko kucc kucc ne ko di jox duñu mu duñu mu ne ko loo yëgati mu ne ko dara mu ne yéen yi doon yuuxu naa nekkatul nekkatul ba may toll fii te moom it mu mu nekk ci xale ba may toll fii lañ ko mosal ca la ma la la lañ ma daa def ca lañ ma mosale lañ ma daa defal kon nag xasida gi fu mu dugg na xam ne yàllaa nga fa yonente baa nga fa Sëriñ Tuubaa nga fa ñett yooyu nag <coughs> fu ñu nekk ku fa nekk santal ku fa nekk jàppal ñun ñëpp nanu <clears throat> nanu gën a laxasaayiwaat gën a xam kenn mooy sëñ Tuba gën a seeti liggéeyam sëñ Tuba bi te seetal ko bu baax ba gis ni mel nan góorgóorlu bu baax a baax te jàpp ci loolu yi muy asamaan ak suuf leer na lu gën a kawe loolu yi da caa nekkul dia su ci deglu waxe bañ hmm. dee su ci deglu waxe kenn ngay wax la am ngay wax la ndax bi sëñ bi nag nappee ci liggéey bi ba àggale hmm. son borom fa ne sama sama yonente ak sama alquran ñom la naroon ñu dend ak man kenn du ci kenn du ma dend ku dul ñoom ñaari waaye bi nga defee lii nag may naa leen ngeen ñettee leen nga ñettee leen ca àjjana loolu yi loolu yi sëriñ bi am na ko digganteem ak boroomam kon nag naan futti ko bu baax xam ne lii yiwut àdduna ak àllaaxira am nanu ko alhamdulilah waaye nag nan ca nekk nag xaalis boo ko barilee bët bu set doxal ngir mu yokk sëñ bi baax na ngay mooy yàlla bu ko kenn def sëñ bi baax na nga ni dana ma te dana ma defalee dana ma defalee bu ko kenn def ku ne nag futti kuy jaamu yàlla nees ko ko digalee <coughs> na na futtiku di jaamu yàlla te bëggante te bennoo ndax kii nu am kenn la muy Sëriñ Tuuba kenn koo kii nag mënula laa jaar fenn fenn ba mel ni moom moo xam moom nga yaakaar moo xam yaakaaroo waaye li gën a wér hmm. mën laa jaar fenn fenn fenn fenn ba la ba lëngoog moom mënta am fam jaar yàlla hmm. ba agsi fii hmm. gisuñu kenn kenn kenn koo xam ne jaar nga suñ borom foofee jaar suñ borom jërëjëf jërëjëf jërëjëf Seydou ndeysaan loolu laa doon wax léegi eh, fii mu ko boromam jaarale mu jaar fa boromam ba agsi fii mu tollu waaw amul kenn kenn kenn kenn ku fa mus sa jaar dëgg la dëgg la loolu te muy lu wér nag mu saako wax na ko ña xam yàlla ak ña xam yooneen ca baawan ba tey ba tey kenn jaaragul fa mu jaar boroomam wax ji dafa maa dugg dafa neex waaw dëgg man nag maa ngi sant ndax jotaay bi maa nga fa woon waaw maa ngi sant bu baax maa ngi koy fàttaliku mi ngi mel ni tey 2015 waaw ndeysaan yàlla ko yàlla doolee defal euh, doole ay dara jàmm ñu ngi lay sant na ci yow mi ko laajaat ndax fi ne mi ngi mel ni rek maa ngi koy gis nii moo tax moo tax lu baax rek am solo waaw fi ne amul dégg nga si Aliou fi mu fi mu dugg ndeysaan fi mu jaar léegi ci ay kàddoom nga xam ne moom waxtaan wi fi mu ko tegoon da nga naan sax nañ bàyyi si Aliou mu waxtaan rek bañ koo dog ndax amoon na solo ci am solo goo xam ne si Amadou dog ko day ëpp waaye heureusement bi ci euh, ndeysaan euh, élément bi jaanay Seydou ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax euh, di leen wax ne tamit mbokk taalibe yi ku ci bëgg ànd ak ñun ci jataay bi rek day mel ni numéro boobu boo ci wootee di nga tàbbi si biir jataay bi 77 345 57 10 incha allah amul dégg nga kàddu yi loo ciy dolli si sëñ Ahmad waaw jërëjëf sëñ maam jërëjëf sëñ Alioune ci kàddu yi nga xam ni teewul nañ ko ci ku tedd ki di ko barkeloo Euh, jërëjëf sëñ Alioune moom mm-hmm. daanaka toogoon di ko déglu rek mm-hmm. soo toppee ñu def ci ay taalixaat moo may moo may dàqal ndax euh, des fois day dugg foo xam ni toog déglu ko rek jaar màggal gi ci ci maanaam toogaay sëñ Saliou bi waaw ak maanaam dafa dafa dafa ni ko sëñ Saliou réussiré waaw xam da nga koy ba ci tey sax bu ñu ko toppoon mm-hmm. ba ñëw ba ci sëñ sëñ sëñ baara mu njëkk toog ci sëñ kéro bi mi ñëw fii Thiès. nga di xalif serigne Touba. kéro sax way serigne Cheikh Touré. yoy yëpp boo koy indi serigne Saliou. wallahi bëgg serigne Touba rek. Mhm. manam bëggam serigne Touba dafa fës. Mhm. manam man man day ci mom la gisé mom kilifa gu toll ni mu toll. Mhm. ak ak ak niko niko niko ciir bi mu am ci serigne Touba. euh tak ndigam bu mu deugër ci at yi mu am. moñu jangal ñun marche man man marche marche bi ñuy def ni mom serigne Saliou Touré moñu ko jangal moo fi njëkk a takk ndigam dox jëm kër gouverneur waaw ni ni ni ni ni nañ leen barkelu ci bërëb ba nga xam ni andi woon dafay sëñ Tuubaa loolu moo ñu ko njëkk a jàngal takk ndigam ba mu dëgër mhm. di dox ak ak ak i tànkam ñu ànd dem loolu moom ci moom lañ ko jàngi te loolu bëggam sëñ Tuubaa rek moo ko de teewlu nañu te ba tey doomi sëñ Tuubaa ñëw fi ku demee sëñ Murtada mhm. wala kenn ci doomi sëñ Tuubaa yi mu taxaw takk ndigam ba mu dëgër wone ni maanaam nii la ñu war a mën a yeesale suñu taarif ci suñu diggante ak sëñ Touba. Mm-hmm. moom dafa dafa dafa dafa bëggoon Serigne Touba. woyofal boppam ci kanamu njaboot sëñ Touba. Mm-hmm. waaye fees dell nag. maanaam cër bi li muy rëy rëy ci moom. Mm-hmm. taxul ma mu yëkkati boppam wala mu wane mbagg ni lii laa am wala nangam waaye toujours day wane nii moom sëñ Touba la fi nekkal. Oh. mas naa toog ci jotaayam wax ni doo leen dégg mukk man leen saluturé di tudd leen sama bopp wala mu leen ku jëm ci sama waajur Serigne Touba rek laa leen woon te nag ba mu fi noppee jóge nag wax dëgg yàlla sëñ tubaa rek la ñu jàngal ñu nu ñuy toppee sëñ tubaa jàngal ñu nuy jariñoo sëñ tubaa mm-hmm. jàngal ñu tamit ab taalibe dëgg fulla ak fayda gi nga war a am maanaam du tee nga nga nooy du tee nga nga nga nga nga woyof mm-hmm. waaye tamit da war a fees dell am fulla am fayda sa bopp loolu tamit jàng nañ ko Serigne Saliou Touré mm-hmm. waaye jàngal nañu tamit liggéey Serigne Touba maanaam boo xoolee xelkom bi ni ko daan doxalee loolu danoon jàng dañu doon jàngal ñun kuy bëgg a jariñu Sëñ Tuubaa faaw jëf kon yoon wi jëf ci la bokk mhm. moom ci Sëñ Tuubaa lañ ko ci Sëñ Saliou Touré lañ ko jànge xoolal xoolal ni Sëñ Alioune waxe léegi ci màggal gi ni mu ko daan taxawoo ci jël alali boppam mhm. te warul taxawul ci ñun taalibe yi kenn ci sunu buntu kër laaj ñu ni jox leen ma damay def ci màggal gi mhm. waaye ci moom ci ay pexeem boppam ak it ndimbalu Sëriñ Tuubaa moom ci lay jël def xam ne maanaam taalibe yi dañoo war a def Sëñ Tuubaa du leen sonal loole tamit jàngat la boo xam ni nun suñu waar boobu war nañ ko xam ni maanaam euh, sëñ Tuubaa bu bu bu xewlee rek dañu war a jeex suñu doole ci ci moom mm-hmm. loolu mu jàngat nañ ko ci waxi sëñ Alioune ci li mu doon wax léegi ci mm-hmm. sëriñ bi ah, loolu lépp day wane ni euh, sëriñ Saliou daal ñun mënuñu ko fay mënuñu ko fay bu ñu mm-hmm. doon takk ay rajo di waxtaane at mi yëpp mbiru sëriñ Saliou du tax ñun ñu jot asakam ndax ki tax nga jariñu ci sëñ Tuubaa ki tax nga xam sëñ Tuubaa ki tax nga xam yoon wi ngay jaar ba mën a jariñu ci sëñ Tuubaa booy sëy dëgg-dëgg kooku mënutoo koo fay. te nun ñi suñu wàllu bopp. Mhm. waxuma la ñeneen. Mhm. ñun li ñuy doon doon ay ndaw fi ñu toll nii. Mhm. nit day dañ ñëw ñu tette ko teg ko yoon wi war war a jariñu ci bari si jariñu sëñ Tuba. dëgg la te loolu ñu ngi ko namp ci Serigne Saliou Touré. dëgg la dëgg la kon loolee nag ki la defal loolu sëñ bi doo ko fàtte mukk. Ah, te mënoon na ni ku jëblu njëw leen lu ci man waaye sëñ Saliou Touré mosulaa woo benn yoon ni la kaay leen wala nangam wala ñëw ci daayira nii leen ñëw leen ci man musta am mësta am mhm. da ngeen am seen bis mu ñëw taaralal seen bis bu bu ca yëkkati alal jote sax mu yëkkati jàll alal teg wallaahi laa mhm, mhm. kon kooku nun Thiès war nañoo gën a góorgóorlu bisam bii ñu jàpp ko bu baax a baax mu doon anniversaire u Thiès xëy na biir ci na mhm. waaye danañ ko ñaan ku tedd ki bu ba xewetee Thiès gépp ñu yëkk ni maanaam bis bi mooy anniversaire u Serigne Saliou Touré ndax loolu yàlla na ci moom mhm, waaw yàlla na ci moom dëgg la euh, bisam bële dëgg la de ndax bisam bële moom moo waaw moo ko fagaloon mhm. waaye nun ñu delloo moom ku jugal defal ko hommage moom Serigne Saliou ngir fàttale ko moom ndax li ñu ñàkk Mhm. ah wurus la de. Ah, waaw laaj wurus bu a mag la ñu àgg. kéemaan la damay baal sëñ waxtaan wi incha allah. jërëjëf jërëjëf sëñ bi sëñ si Amadou si ba tey ci kàddu yooyu am na solo lool lool lool ah, sëñ Sall Touré moom taxawaay moom duñ ci li nga wax rek signal mooy buñ ci dugg am na ñu ci waxtaanee sax maanaam dañuy xaw a eh, réer ci biir ci biir sëñ bi waaye ndax géej gi mu doon rek mën na noo ci biiram waaye ba tey sëñ bi xam nga ni fi nga waxee ci wàllu maanaam xam-xam njàng mi fi mu ko jaarale nga xamante ni njàngam génnul njaarim ci diggante sëñ Mor Mbaye Cissé sëñ Muntaxa mi bokkoon na moom daara ñu bokk di jàng mu toog xilaaf ak gi tey ak seere ya nga xam ni sëñ Saliou seere la nag ko ca booba nag ca booba kon war na sa xamee ni sëñ Saliou Touré ku nu waajal la nga xam ci sag ndaw rek nga tàmbalee di wax di di am xëybu di wax li nga xam ni ñëwagul ci jataayu nit boo xam ni ak doonam sëñ Tuubaa yaa ko njëkk xamal ci kaw suuf ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yoo xam ni maanaam seeral nañ ko ci baatin ci sëñ Cheikh Touré ci yu bare bare bare bëri waaye nag ak teewlum sëñ Touba ak ni mu fexe woon ba lottal boppam ci ak jaamu yàlla ba xamante ne daana natt boppam ci diggam ak sëñ Touba ba sëñ Touba eh, diggante bii nga mujj waxtaane mu mel ni sëñ Touba day yàlla ci moom da jiitu muy am loola ci sëñ Touba am na fu mu jaar ak Sëñ Tuubaa ci diggam ak moom ba Sëñ Tuubaa may ko loolu ci boppam waaye Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa tam may ko loolu ci boppam nga xam ne dañu koy dikkal ci ni mu ko soobee yooyu ay ay maqaama yoo xam ni ak jaamu yàlla moo ko may Sëñ Cheikh Touré fi mu ne bi su xasida bi amoon 2003. 2003. Mhm. ba mu ci ñëwee di soññee ci xamle lu baax ni mu jafee mhm. ak bakkan ak seytaane mhm. ak bànneex ni mën a yàqale nit di soññ mbokki taalibe ci ñu góorgóorlu di sellal seen i jëf mhm. te wattandiku bakkan mhm. bisub keroog waxtaan woowu wax na ca moom sax jëkk muy gis sëñ Tuubaa fu mu jaar mhm. ndax booba àgg na ci xam le ni gis rasulullaahi sax li muy jafe-jafe nga xam lu jafe la gis rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam moo gën a yomb gis sëñ Tuubaa ci lay nettali bis boobu ba àgg ci kum daan jàngal ci njaareem benn bis mu fekk ko got ne ko man damaa génn gis sëñ Tuubaa nga xam ni looloo moo ko def xaal nee na ma génn ci àll bi ne waaw yow daal yaa ngi feeñ ñëpp te man sax mosoo maa feeñu nii la ko waxee nag nen daa tàmbali nag mhm. laxasaayu nag fas yéene nag mhm. taxaw temm ci not bakkanam mhm. teg jëmbam jaamu yàlla yu tar ngir bëgg a gisante ak Serigne Touba nee def na ko ay diir bu yàgg bu yàgg lu ëpp am at nee na guddi damay laxasaayu ba dëgër këcc yeew sama bopp di jàng di jàng di jàng dana toog fukki fan ak ñaar yoo xam ne duma lekk aw ñam nee na fukki fan ak ñaar dana ko toog du mus aw ñam ngir rek maanaam bëgg a gis Serigne Touba. Oh. nee na loolu nekk na ci diir bu yàgg. ne ci àll bi di sonal boppam nee ne dagg naa coono yu metti ba génn guddi. Mm-hmm. goo xam ni maanaam ba ma ba ma laxasaayoo ne ci njàng mi nekk ba ma wutuma ci dara ba sonn ba sonn. Mm-hmm. ma tëdd ni gam gam gam. Mm-hmm. ci la Serigne Touba ñëw nag ma gis ko mu jàpp ci buum gi ma yeewoon sama bopp. di ah. ree waaye nee na ba ma ko daataa am son naa ca lool lii 2003 la ko ko tàppee fulku euh, mm-hmm. de bisu xasida 2003 da nga ko da nga ko gis mu mm-hmm. mm-hmm. ba ginnaaw bi nag ma nekk ca loola nekk ca loola bàyyiwuma ba léeg-léeg ba gis ko rek léeg-léeg léeg-léeg kenn loolu la ko wax daal di daal di nëbb la des waaye mujj sax foofu du ko mujj di weesu ndax bari na ci dëkk bii ñoo xam ne wax na leen ni sëñ Touba maanaam léegi la fi génne te jotaay fulku masxoon ëpp ay junni nit ñooy toog mu koy wax ana bis boo xam ne na sëñ Touba dém bi jàng fulku mi fi mi ngi fiy nga xam ne kon àggoon na ci wax ni ko fi ñëw daal da nga xam ne moom day si nga fekk sëñ Tuubaa ndax weeru kor wu nekk dafa dul jóg nga xam ne kon lu mu gënoon dem rek ci loolu la jaare di dem ba dem ba sëñ Tuubaa may ko ci jëmam loo xam ni yebal na ko ci ay nit yu bari mu leen di xamal ni sëñ Tuubaa nee na li sëñ Tuubaa nee na laa te nag bu kawe la oh. mm-hmm. sëñ Saliou gis gi mu daan gis sëñ Tuubaa ba nga xam ne dégg naa ci sax lu yéeme loo xam neexul nettali ci njabootu Sëriñ Abdul Ahad koo xam ni dafa dëkk siyaas si ko mm-hmm. mu ne ko ndax mas ngaa gis sa maam mu ne ko déedéet Touré ma ko ndax bëgg nga koo gisa ah? ne ko waaw lii sëñ xaalim tur moo ko nettali waaye sax foofu laa ci yem koo xam ne àgg na ci bu la bëggee wan suñu tubaab wan na ko kon kooku xam nga ni kon kooku niveau bu kawe la bu dee ci wàllu baatin moom ak i jagleem am na waxoon tey bu ko waxoon wallahi da nga naan loolu boo xamul waaye nag ku xamul mbirum sëñ tubaab rek waaye sëñ tubaab moom ay mbirum li yàlla jagleel ajabani xayru baaqin fihi qattaaba kulli waraqaabi ma lii qaada aqtaaba yàlla wammatal sëñ tubaab ay xutba ak i sëñ Saliou Touré man du ma jéem a dugg mukk ci naan bii dimension la am ndax bii dimension waaye lépp lu ko baax daan am ci ginnaaw ginnaaw am ngërëmal sëñ Touba boo amee ngërëmal sëñ Touba am ko sëñ Saliou am na ko moo tax daana wax wax yu yéeme yoo xam ne wax naa ko sànq ci jotaay ñun ñii bañ ko siyaaree waa Jal Ibrahim ba mu ñuy wax naa ñu ba ma ko ne yaa nekkal sëñ Touba Thiès tam tàng jër ne ma bul wax Thiès cees lu tuuti la Saliou Touré ngi ci àdduna bépp tey sama loxo ne ma sëñ Abdoulaye ba ma fi indil lu mu wax mm-hmm. naa leen andil ku ak ci yàlla fa war ngaa xam ne dem naa maa nga fa liy oh. àggalee lu tuuti la mi ngi saa poos bii keroog kaddu gi ba mu koy wax ci xaal la ko waxee mm-hmm. ndax moom ku mën a nëbbu la waaye nag xaal léeg mu ñëw ba faw am lu génn waaye keroog dani liy àggale ci yàlla lu mm-hmm. tuuti la mi ngi sama poos bii teg loxo bi ci poos bi kon kooku xam nga ne kon niveau mu kawe na mm-hmm. te bokkoon na ci yoo xam naan seex yi sëñ Tuubaa seexaloon ñu dem ñëwuma ci kenn ku dikkoon bëgguñu weccoo du ma nangu waaye bu loolu lépp amee am na loo wax léegi mooy teewlu sëñ Tuubaa oh. sëñ Saliou Touré teewlu démb rek maa ngi seet benn vidéo boo xam ni ñi koy siyaasi dañoo ñëw di ko di wax ak moom suñu Omar Sow ma nga ca vidéo ba bi mu dikkee ba toog rek suñu Omar di wax ba yàgg mu tudd rek mu fokk mbax mi ah. ci saasi te ci màggal rek mu fokk mbax na mi daal di koy bokk nii mu ne ko ciy ah. suñu Omar ne ko ciy yaa yaa màggal suñu Tuubaa te fonk ko de bu ñu tuddee suñu sa mbax oh. te loolu da cee da cee da cee tàggatu ba tàggat ci ku koy déglu rek maanaam da da nga wagar wagar borom Tuubaa mm-hmm. am na fulk boo xam ni bis booba mm-hmm. defe naa xaw ma 2016 la xaw ma 2000 14 ci digënté yoy dal ci mm-hmm. fulku bi yi jitu won la mm-hmm. bu bi bii 15 la kon boba jitu mm-hmm. dafa ñëw fekk mu xaw mel lu xaw guddé biñ togué di xaar ba yu jot mu dal di su wax yu tang gaddu fulku bi bam diké ba tok ubbi ko tambalé jang mbaxana sol muy mbaxana mu wéx xéet kopatu yoy la mu fatte ko ci bopp bi ah. di jang di jang di jang ba rek mu fàttali ko ni mbaxana mi mi ngi ci bopp bi waaye ni lu ko def di koy fax mu di feuy mu taxawal ñang mi ne ko ko bëgg faal dootuma ko laal mukk dootuma ko laal mukk ngir magal Cheikh Amadou Bamba khadim Rasul ci fatte gi mu fàtte maxalu ci bobbi nga xam ne jang du nangou ko raf bu jang fulku bi dana teewlu seigne touba ba du nangou kenn ku yëngu wala ko raf nga sukku rek say tank di tali seigne touba do ko nangou limi don don mak da ngay gis tanki nim koy leme nga xam sop benn sop lay sop mbaa ñaar waaye bi yep da ngay gis tanki da koy ulbatinee rek waye da koy bank bam ni bo gisé jotay bi ñu mu nan ku ñew fi gis nit ñi def ni ngir man da nga xam du nday du bàyyi sëñ Tuubaa la fi mu tollu ni lu mat daanaka juróomi junniy nit nek ci biir jotay bi mu fawar lepp delloo lako borom touba am askan wu bax borom xam-xam la am ngeureumal seigne touba amna am seigne ngërëmal sëñ waye xolal waaye fa dafa fawar lépp ni du nday du bàyyi sëñ la ñaka war gi ñaka war seigne touba ah. wa dafa dafa dafa man dafa wat lepp borom touba lima gëna neex ci seigne Saaliw tire moy lepp da delu wat ci Amadou Bamba bo waxe man ku liggey liggey bi ku tubaab bi ku demone ci geejgi bàyyi leen caaxaan yi nañ maase ni ko yawa nga xam ne loolu dafa dafa te loolu nag lu lu neex sëñ tubaa la ndax bari na ñoo xam ni day xumb neex rek ñu fàttali sëñ tubaa moom moo def coono yi am na jotaay boo xam day wax ba àgg ci xaadima Moustapha dimbali leen ma ngeen kennal ko waaw àgg ci ci ci ci ñaan ndimbal ngir ñu kennal xaadima Moustapha ngir coono mu daj loo wax rek mu ni borom liggéey bi kenn la dem na ba kenn xamatul sax gën kër la bokk ndax kër sëñ Saliou gi mu bokk sax wane warewu ko bi mu dikkee fii sëñ képp lay teg boo nee sëñ tubaa amatul ci yow sago ñun ñii jox nañu ba tay alalam ak di ñu waxi kaddu ak di day dem ba àgg ci mel ni sax ana bis boo xam ne bis bi may wax bañ dëkkee di ko siyaar gars yi di yëkkati ahmadou bamba jaajëf ahmadou bamba jaajëf mujj ni sax ne yéen lii ngeen wax ku koy wax day war a daw topp sa ginnaaw boo yuuxoo nu yuuxu boo sal xolle ñu sal xolle da ngay seet loolu waaw ci gone yoo xam ne yaa leen yar léegi ñuy tudd suñ tubaa di ko way bayu nga ne léegi a kon kooku niveau am ci ci ci sëñ Touba dafa kawe. Oh, oh, oh, nangu ko ko nax ci sëñ Touba. lu ci waay wax rek mu gëm ko lu ci waay wax rek ànd na ci yow. Mm-hmm. nga xam ne loolu liggéey bu rëy la boo xam ni defal na ko sëñ Touba ci Saliou Kees te loolu nag am na am na résultat. Kees. Mm-hmm. Sénégal yaat na de. Mm-hmm. waaye muriti Cees yi. barke Cheikh Ahmadou ba keroog rek Touba. suñu mbokk bu tey waxam fii la nekkoon Alioune Seck. léegi ma nga Touba. bi mu ñëwee ci màggal gi dani man de wax dëgg yàlla keroog rek maa ngi leen tudd ndax damaa dem ci daayira boo xam ne fii laa ci bokk ci Touba gii ñuy jàng mm-hmm. waaye bu ñuy daayira ba ñuy daayira ba muy taw mm-hmm. ñëpp dañoo daw bàyyi ma fa ah. may jàngaane ma sëñ bi ñaanal man leen kon dem leen ngeen ñibbi yeen bàyyi ma fi ñeena ñëpp ñibbi ne moom rek muy jàng ci taw bi mm. te ma loolu ci yéen laa ko gisee man bam na ma la ciy yéen a wut sama gaaya mm. sama gaaya fa kees ñoom duñ daayira mukk ab taw tax ñuy daw di ko fa bàyyi te loolu fii la am muy muy taw ñuy mars dox premier safar muy taw ñuy daayira mm. dégg nga sëñ Tuubaa jaral la mm-hmm. loolu sëñ sawitir moo ko def suñuy jëmm am na fukk boo xam ni suñu bëggee daa ñëw di jàng muy taw ñu dugg ci biir jàkka mm-hmm. yi ci biir jàkka ji lu ñu def ci biir ñuy taw taxaw fi ci ci ci penc mi ci ëttub jàkka ji ne nañ génnewaat njàng mi Ibra Gueye na génn ñëpp génn mu toog muy wis mhm. maanaam muy jàng am ko indi ab parasol timale ko ko mu ne ko nii la ko def na ko bëmax bëmax bëmax ku ma dali fële nañ nañ ci ci ci njàng mi sëñ bu dee sa kilifa mhm. loolu da koo def ci murit yi ñu ne xawma lan xanaa suñu daayira yi ñuy def ñu xanaa bala ñoo génn mu taw ba kenn amu foo jaar mhm. waaye dem daayira muy taw daayira ba yàqu ñun loolu duñ ko def dañuy fab rajo yi muur teg na lee fab xasida yi yóbbu na jug taxaw te loolu ci moom lañ ko jànge kon dafa defar waa Thiès mhm. ba ku ci nekk sëñ tubaa jaral la moo tax nag faaw nu jëriñ ci de li cool yi bari bari Thiès mhm. bu dee jàngum xasida kenn mënu leen ci keroog bañ koy maanaam bañ koy jébbal sëñ tubaa ca tubaa mhm. Serigne Abdou Samad wax na ko nee na Thiès yéen amu leen payuk sëñ Saliou ndax defar na leen bu dee njàngum xasida Thiès a ci man ñoom ñoo ko wax ah, sëñ Abdou Samad a ngi toog sëñ sëñ Abdou euh, ah sëñ sëñ am sut Moussa Abdou Lahad ñoom ñoo ko wax ne njàngum xasida Thiès a ci man Mhm. lépp lu ñuy wax ci liggéey Sëñ Tuubaa rek boo ñëwee Thiès lay tàmbalee bisu xasida mhm. tey wër na àdduna Thiès la tàmbalee bisu su Sëñ Tuubaa Thiès njàngum xasida mi tey Thiès bañ na ko ba sëñ Ibrahima Guèye mii ba mu ko tegee ci ci wetam di ko jàngloo mhm. ne ko damaa bëgg nga am am am foo àgg damaa bëgg Sëñ Tuubaa déglu sam njàng ba mu ko tegee ci kanam di ko jàngloo ay at tey jii Sëñ Muntaxaa da koo woot di ko jàngloo ci jumaay tubaa lu mu samp rek dangay gis ni loola day gën di jëm kanam kon Sëñ Saliou Touré dafa doon jëmm joo xam ni ku mu defar foo dem daanaka wax foo dem yaa fay yaa fay tane waaye doo kenn du la fa tane kon suñu Saliou Touré amuñu payam amuñu payam noo koy ñaan suñu borom gën a dolli ay martabaam bu baax a baax a baax weddi yi ci cib téere la ñuy waxtaane moom waxtaane wuñ ci xam-xam waxtaane wuñ ci dara li li ñuy li ñuy gis ndax ci xeetu liggéeyal suñu borom ci Serigne Touba ndax kenn def na ko ku Sëñ Touba keneen ku man di def yées nga la Sëñ Touba def jàmbaar ngay ca nga nekk am na ko xam ne ci magi boppam yi la mag moom yi sëñ bi da ko daal ko joxaat fukki ne ko demal demal sottil ma ba mu laataa agsi mu tawat tawat bi méttee métti bañ bañ jagar ko andi ko bi nekk la ma ko doon la ma ko doon def loolu nañ ma ko andil bañ ko andil fekk mi ngi bind fulku mu ne waaw kañ lii kat la ah, ko attanut ñu doon ko ci dimbali de delloo leen ma ko nekk ñu ko fab teg ko ko mu ne bëri ne dara dara métteeku kooku mooy sëriñ bi nanu laxasaay te xam ne sooyunu sooyunu de àjjana sooyunu fa de nun ñëpp ñëpp ñëpp noo ca àjjana la nuy dox ñëpp seen ñëpp ba ci jataay bii tey sama borom dana leen fay tey ab tabbi àjjana ëllëg. kon nag. góorgóorlu bu baax. te sant bu baax. tey laxasaayu rek. nit ku ne. Hmm. li fi génnagul àdduna. Hmm. dese na liggéey. ku matal dem. waaye ku dem ñu teral la. Hmm. jërë jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kon nag góorgóorlu bu baax te sant bu baax tey laxasaayu rek nit ku ne li fi génnagul àdduna dese na liggéey ku matal dem waaye ku dem ñu teral la jërë jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah. loolu am na solo lool. waaw ndeysaan ndeysaan. jërëjëf loolu day gis ku matal dem bàyyi ku dem la dem rek ñu teral la nag. sëñ Saa so sooroon bi. Mhm, mhm. waaye li mu ne ku matal dem. te ku dem ñu la. Mhm. sëñ Tuubaa ko teral bu baax a moom sikkuwul. waaye man dama am lu ma jàngat ci jataay bi. maanaam ci fulk bi sax lay wax. ndax ñun. yàlla dimbali nañu bi fulku bay nekk juróom benn basan la ñu tàmbalee dem ci fulku ba waaw mu yàgg lool macha allah dañ daan summi suñuy daal teg ko nii bu ñu paree jugaat jël suñu daal jug dem mm-hmm. kon booba nga xam maanaam bu dee juróom benn basang wala huit basang mm-hmm. gën ngaa bari bu ma tee dix boo paree fi nga teg see daal nga gàddu jug dem waaye xoolal tey te mësta woo presse mm-hmm. mësta woo kenn ku mu nungu mu filmer ko wala mu enregistré ko moom Serigne Saliou nu mësta ko ku ko filmer waaye tey xoolal tey li sëñ Tuubaa doon bii di iyaali bila bukaay mhm. fexe na ba xol yëpp nungul sëñ Tuubaa te dóorul kenn kenn jooylu jooylowul tey xoolal bi mu woonee bi mu liggéeyee ba liggéey bi mat mhm. bi mu woonee ginnaaw tey xoolal ginnaawam bi mu fattoo liggéeyam boobu nga xam ne ci benn liggéey la nekkat nga xool fulku bi ni muy feesee jàkka ji ni muy feesee te mhm. kenn du xuloo kenn du xeex kenn du mer kenn du amul benn bruit loolu nga xam ne liggéeyu Serigne Saliou Touré nga xam ne maanaam liggéeyu liggéeyu liggéeyu nitu yàlla dëgg mooy loolu mhm. maanaam fulk bi mhm. li ko ne woon àggaleel ñu ci yàlla mhm. wallahi al azim résultat bi moom benn ku ku xamul li sëñ Tuubaa liggéey li sëñ Saliou Touré liggéey fulk bi moom résultat la ci moom loolu moom moom loolu moom am na tamit xam naa ni bi xam sëñ Saliou Touré ci baaxam gi ba tey xëy fi ñu nekkoon kawe na lool waaye am na loo waxoon laal ko da nga ko laal rek boros ko jàll mooy sëñ Saliou maanaam ak nekkam bi ko Sëñ Tuubaa indee fii mu ne fi Thiès mu saal Touré ci ci ci axlaaxam maanaam ci jikkoom ju rafet na tam ak yittayim ju kawe joo xam ni ku ne xam na ca mu mooy joo xam te ni kawe na kawe goo xam ni kenn xamul daywa bi ci ku xewle wax nga ko mu nam ko tàmbalee Tuubaa dafa sori waaye bu dee ci réew mi wax nga ko tari turux yi lu am sëñ bay dem waaye tamit ci biir taalibe yi nga xam ni am na ci ñuñ maanaam seen doole bariwul moo leen di wutal xarum tudd ñoom boole kook ñëw sagal leen sag boobu mu daan sagal murit yi rek nga xam ni ku xewle mu ñëw tuddal la sa doom ñu ni maanaam sëñ Seex Ture mooy tudd si doom ji maanaam sag boobu ñu ni kat diw baayam daa génn àdduna mu yónnee fa comme ni njaboot giy def yóbbu fa aw nag maanaam dëjël sa baay ñëw ca dëj ba toog maanaam jàllale jàlle ko maanaam yooyu yëpp sëñ bi maanaam ay euh, sëñ maam loolu moom du ma la du ma dama dama lay jox loo xam ne maanaam li ma la yàgg na mm-hmm. sëñ maam Mor Sugu mm-hmm. mi ngi may dégg mm-hmm. moo ko doxal soxna moo ko jindi moo ko indi ci otoom moo ko moo ko moo ko doxal soxnaam bu njëkk boobu soxna Mati Ndiaye mbokk mbokkam ñu may dégg bu fekkee ñu ngi seetaan télé bi mm-hmm. wala ko xam lii may wax mu ngi réew sëriñ bi moo ko dox moo ko def lépp mm-hmm. ba yónnee ko ñu jëli ko indi ko pour dëggal li nga xam ne maanaam da doon moom moom jariñowul taalibe yi waaye da doon jëriñ taalibe yi benn par benn nag noonu lañ ko mën a toppee diw diw diw waaye ki nga xam ne moom sañ na ko tudd moom nga xam su ma ko tuddee da koy neex mm-hmm. te da koy wax fu nekk ndax du sakkatu jëf moom sëñ Saliou Touré jariñ na ko bu baax baax a jariñu saayir laa lay wax waxuma la taxawu na ko nag ci biir ak ci biti te booba soxna soosu dafa am neneen du ma defe woon jaru ñu dagg ci loolu waaye won la ni maanaam sëñ Saliou Touré jël na alalam wallaay def ci soxna oh, waxuma la sax man taalibe yi sax oh, taalibe yi taalibe yi wér na waaye ah. danaan danaan danaan danaan danaan may ku ko bañ jeex di safoo ku ko soof mu jëm bi xoola loolu ku dul mooy boromam loolu jël ñu wax ci boromam ndax sëñ Saliou di nga gis ni maanaam am na ci kilifa yi fii Thiès ñoo xam ne maam la daloon Cheikh Ibra daanaka daan na ko lu dul maanaam Cheikh na deen dégg naa ko Sëñ Tuubaa waaye Sëñ Tuubaa lu ne def nañ ko ko wax nañ ko ko Cees lu ne dégg na ko waaye ku ko jokk ci safaan moom mu jokk la ci waaw koy wax fi ne moom jikko ju rafet mhm. ak doxalin wu sell ci maanaam xam-xam ak dimbalee mhm. maanaam moom da cee da cee da cee kawe mhm. ndax fi leen am na ñoo xam ne mën ngaa bari baatin mën ngaa bari xam-xam man ngaa am daraja bu nekk waaye doo mën a maanaam Euh, jaar la ci yoon wi nga bëgg loolu jikko ju rafet ak mën a muñ mm-hmm. fi ne ci ci ci bala maa dugg ci gis nga sëñ Saliou Touré mm-hmm. dëkk bi ak feebare ay turandoo xoolal turam bi ni mu rafetee as saalix mm-hmm. waaye kuñ ko mës a mooy joxe ndigal ni nañ koy woowee murit mësul nangu ñu ko kenn ko wee maanaam sëñ Saliou Saliou sëñ Saliou Touré danaa nañ koy woowee loolu ñu bari xamuñu ko ñi ko tuddee ci dëkk bi ñépp moo joxe ndigal ci ñu leen di woowee murit loolu benn la ci delloo gi mu delloo lépp ci sëñ Tuubaa bu dee taxaw nit ñi nag comme ni ñu ko waxee taxaw ay ngénteeg taxaw ay céet takk ay sëy loolu li mu ci def dafa bari waaye bu dee bu dee jafe-jafey police ak tribunal tamit kazalika bari na ñoo xam ne buñ duggul kaso ba tey mhm. grâce a sëñ Saliou Touré barke Seexul Xadim am na ñoo xam ne heure bii war naa fekk ñu naan bañ duggee kaso ak sangam waaye taxaw la def tem ba fu am muy amee njàqare mhm. mu taxaw ba dimbali la ba sa gàcce googu maanaam du du sori ñu baree bare bari sëñ Thiaw Té moo leen tinu ba tax seen i jafe-jafe maanaam maanaam soriwul waaw polis bi itam ak waa naa jox ko jox ko jox ko jox ko war na joo xam ni lépp lu mën di xew rek dañ ko ci déglu waaye nag daawul dugg ci yii mbirum jigéen mbirum dorog ak mbirum euh, euh, ku rey nit waaw maam ñett yooyu daaw daaw daaw ci dugg mm-hmm. waaye lu dul lii rek lu mu rëy rëy rëy dana taxaw wax ca def ca ba nga xamante ni murit boobu dana am jàmm loolu namit lu am solo loo xam ni ay nit ñu mhm. baree bare bari mhm. mën nañ koo seere fii ci dëkk bii di kees kon dafay nekkaloon sëñ tubaa njaboote woon ñëpp dafa njaboote woon lislaam bi ndax mhm. diggante ma këri diine yi ku ne gis na ba léegi xasida yi ñu koy tagg ba léegi ñu ngi koy seere keroog bisu ñaanam ku fa ñëw keroog gis ni senegal gépp oh. gépp délégation par délégation fu ne la nit di jógee dikk te ku ñëw dana wax lu mu séqal moom loo xam ne boo ko déggee da nga yéemu noonu la njabate woon murid yëpp nga xam ni moo mës am lii ci dëkk bi mooy képp ku nekk ci dëkk bi foo mën a jëblu say kilifa nangu nañu ngay dem ci moom di ko déglu nga xam ne cees dem na ba kenn mënu fee rawlu ak buum nit ñi raw ko te sëñ Saliou Touré àndu ca te lépp da ko amee ci jikko ju rafet ak taxawaay bu mat mat sëkk mm-hmm. kon sëñ Saliou Touré jëm la woon joo xam ni damay wax ni kenn la ci melokaan mm-hmm. kenn la ci xeetu liggéey sànq wax naa ko ku ñu mës a tànn nee la dañ la yóbbu ci ab dëkk sàngam ngir nga àggale waa dëkk ba ca yàlla loolu yoonu murit li muy yaatu yaatu déggaatuñ ko fenn fii képp loolu nag kon doy na secret ci ñu xam ne kon moom mbirum daal lu yéeme yéeme yéeme waaw ba tax na kon bisam bii daal tey ñoo ko ci gën a sant mhm. ndax ñun xam na ni santuk sëñ Tuubaa moo ëpp ci moom sooti am na wax naa ko tey si ab Lahad Mbacké mhm. ñoom sëñ Baye Fallou Ban nee na dañoo ànd ak moom Touba moom sëñ Saliou Touré mhm. bañ àndee am lu ñu doon yóbbu ci ay addiya ba noppi ñuy seeral si Abdou Lahad mhm. seenu cant ci Sëñ Saliou Touré bañ waxee ba àggal Sëñ Abdou Lahad ni leen mhm. fab loxoom ba teg ci bopp Sëñ Saliou Touré ni leen yéen mhm. li ngeen ko sant lépp ak man li ma ko sant lépp li ko Sëñ Touba sant moo ko ëpp fuuf te loolu lépp mi ngi ci boppam bii Allahu akbar <laughs> waaw tey loxo ci bopp Sëñ Sëñ Sëñ Saliou Touré waaw Sëñ Abdou Lahad àggoon na ci wax ne man de damaa yaakaar ne amu ab soññ waaye man Saliou Touré mooy sama ab si ab laat jiite juri ji ak Pastef bi àgg ci naan mm-hmm. damaa defal ne ëwma ab soññ waaye Saliou Touré mooy sa ab soññ nga xam ne am na dox diggam ak moom ci mbir yoo xam ne boo ko waxoon ñi xamul dañ naan déedéet mu yu yéeme yoo xam ni kon da kon waaye nag jagle dafa am jagle daal waaw dafa am jagle dafa am jagle ba noppi mhm. maam doylawul jagleem bi mu amee jagle ba noppi ca ësal su borom fàggul ko ko mhm. ci ci baaxu suñ tubaab dafa dikk teg ko ne jaarat ci yoonu jëf jëfaat nag ba li di maye mu am ko boole ñaar yëpp téye moo tax nee na yoomal xiyam bu ñu ne mhm. anañu andoona saayutule yéen waa Thiès di ngeen ma sant waaw di ma sant te xoolal si mbi mu wax léegi man damaa bég nee moo tax gis nga ñun dañuy sant waaw sooy nu waaw te te nee na su a ko fay ak tàbbi àjjana ëllëg te lu mel nii nag nit mën na ko wax ci bakkan waaye kii du wax du waxe bakkan de mm-hmm. kii du waxe bakkan ndax ku denc ci yooyu la waaye kàddu kii da doy na sëkk rek ci ab soññe bisub tey ñu laxasaay waat mm-hmm, mm-hmm. fas yéene gën a jëmaat ci liggéeyal seen Tuubaa surtout loolu laa bëggoon a wax nag dama ah. wax ne maanaam daayira yi nga xam ne maanaam baaxu sëñ Saliou Gueye yaatalug Serigne Saliou Touré gi defarug Serigne Saliou Touré gi maanaam ubbi gi lépp Serigne Saliou Touré nga xam ni li fi takku ci ay daayira taxaw fi ci ay daayira ci Thiès ci nekku Serigne Saliou Touré ci la taxaw mhm. ba maanaam mbooleem officier yi nga doon wax léegi muy waa police mhm. bi ñuy am daayira ci nekku Serigne Saliou Touré la camp bi bii mhm. samp daayira boo xamante ni maanaam daayira buy siyaari Serigne Touba am ak Thiès forme yooyu Serigne bi taxawul nga xam ni addi yi tey taaw bu tedd bi wax nga ko léegi ndeysaan sëñ Saliou Touré li sëñ Modou Mbaye Samb na nga koy ziar bu baax a baax suñu baay daana wax naan euh, sëñ yi yàlla du defar taaw yi ñëpp maanaam di di di di néewal taaw sëñ Saliou Touré loolu da koy wax lu bare bare bare ni ni yàlla du def loolu mukk kon sëñ Cheikh Ahmadou Bamba Touré nekk fii daayira yooyu àndoon nag bàyyam ba mu sampal leen ko taxawal leen defar leen defar gu nii maanaam taxawaay yi liñ ci war a lu waate ci ak ji daan bàyyi ko Cees bu yokkuwul warta wàññeeku dëgg la fi mu toll nii murit bu nekk war naa yëg ni waaw Cheikh Mahamadou Mountakha mi fi nekkal Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mhm. doyloo na tawub Serigne Saliou Touré di Cheikh Ahmadou Bamba Touré ba ni ko mhm. teg naa la cees nga nekkal fa Serigne Touba sa wajur wa ci liggéey bi mhm. kon nag nun murit yi nekk ci dëkk bi yëpp fu waay mën a bokk ak fu waay mën a nekk na xam ni kon li nu war ci luy doxal yoon wi ci dëkk bi mooy nu maase doon benn topp ci ginnaawam ànd ak moom lëggéeyal Serigne Touba te bañ a war waaw te bañ a war war nag daa bari léegi ku ñu bari dañuy jekku di war ak di fecc kóllëre ak di dem ba dugal ci seen bopp addunay kese rek fu ñu mën a amee daraja fu ñu mën a siiwee fu ñu mën a amee xaalis dem ba li nga xam ne mooy intere bi amal solo yoonu murit amal solo taalibe gi xoolatuñu ko waaye seen bopp la ñuy xool nañu xam ne loolu ku ko def ku nekk sa tay man naa nur lu neex de waaye ëllëg de sag mujj man naa bañ a baax ndax sëñ Tuubaa yoonam wii ay nit ñoo ko doon sàmm di ko taxaw di ko téye ba ñu judd fekk ko fi dara yàquwul mhm, mhm. bi ñu juddoo mënaguñu dara ay nit ñoo ko doon sàmm di ko téye ba ñu xay tey man dara mhm. sëñ Saliou Touré mii taxawaayam bu amul woon tey lii lépp du am kon nag bu fi nekkee di liggéeyal sëñ tubaa ba jóge fi tey jii taawam bii ñu teg ko fi ngir mu nekkal fi sëñ tubaa ñu nekk fi tey man dara war nañoo gore suñu diggante xool ca mag ña démb xool ci moom mën a takk suñu suñu suñu bopp def wenn say ànd ak taawam bii ñu liggéeyal sëñ tubaa ñu dëggu nag àndandoo ndax bari na yoo xam ni du dara bëgg sa bopp rek la sëñ Touba ne woon na bëgg sa bëgg lu baax ak bëgg sa bopp duñu benn nit ku bëgg boppam nag dana bëgg lu baax waaye fa lu baax jógee te defu ko rek waxu ko rek neexu ko nee kooku bëggul lu baax boppam rek la bëgg waaye ki bëgg lu baax nag fa lu baax jógee da koy neex mm-hmm. te yoonu murit yoonu ndigal la mm-hmm. sëriñ saa wituré suuf bàyyi woon ab bant wala mu bàyyi fi muus sax mm-hmm. muus moomee buñ ko toppee jariñu dëgg la te muus moomee topp ko moo ñu wërëgal topp keneen rawat na nag mu bàyyi fi taawam bi nga xam ni sëriñ saa yu Mbàkke yor na ko fukki at ak juróom-ñaar mu jàng tarbiyewu tey jii sëñ Muntaxa doyloo ko bu loolu lépp amul woon sax sëñ Muntaxa doyloo ko ne ko seet naa la biir seet naa la bite kon doy nga ma wuutal wuutal sa baay ci liggéey bi mhm. kon ñun ñëpp dañoo war a yëg ni kon topp ci ginnaawam yeesalaat liggéey bi jot na àndandoo bennoo mhm. doon benn mhm. taxawu liggéey bi ñun ñëpp fu daayira yi nekk daayira yeeg jëluñu daayira yëpp ñu marché doon benn lépp lu sëñ bi bëgg wax ko ñu àndandoo ci moom ba taxaw ko taxawuwaat dëkk bi nag jéem a góorgóorluwaat ci taxawaayi liggéeyal sëñ Tuubaa yi joxaat daayira yi am pas-pas ci xasida yi jéem a farlu ci ak taalibe jéem a dundal yoon wi te bàyyi àdduna ak politique bi taalibe yu bari politique bi moo leen daaneel rawatina jamono yii élection yi ñu topp ay leader naan diw nangam diw nangam te loolu lépp du dara ndax tey jii ñoo ko doon wax ñëpp rey seen bopp gis nañu ni doon yaakaar gisaguñ ci tus te loolu moom moom moom doon na loo xam ni mhm. maanaam bépp murit bu mës a taxaw ni xalifa sëñ tubaa bu waxee politique sens te sàngam wax leader sàngam ndox ma bàyyi wax yi sëñ waxe ki fi nekk sëñ Tuubaa dem ca kooku tey jii am nga gàcce ndax gis nga di yow la nga doon foog ko yaakaar lépp amul gis nga yàlla moom adduna mhm. te lu ko neex la koy doxalee mhm. am murit nag saa bu amee lu dox diggam ak sëriñ Tuubaa mhm. lu mën a doon ba mu defen da koy jariñ billaahi lu koy lor képp la kon nanu tuub dellu ginnaaw laxasaayu waat di ay murit nangoo am ay kilifa te bàyyi par parloo te bàyyi itam jaxase kilifa yi lu ñuy yëkkati ak ni ñuy waxee dañuy féewale ak a jaxase kilifa yi suñuy kilifa lañu mhm. ku ci nekk fam taxaw sëñ tubaa la fa nekkal mhm. waaye ki dëkk boo dem ka fa nekkal sëñ tubaa mboolem waa dëkk ba yëpp ay maase ànd ak moom mhm. teewul nag ku ne am nga sa liggéey bopp yooyu liggéey ci say roq waaye àndandoo bennoo lépp loo xamante ni dëkk bi ko war a def ñu àndandoo def ko loolu suñu warteef la ñun ñëpp kon nan ànd ak sëñ Cheikh Touré taxawu ko jàmbaar la ay rakam jàmbaar lañu ndax bi suñu jógee ba léegi dara taxawul fulku baa ngi dox ñi ngi màggal ñi ngi ànd ak talibe yi ci taxawaay mi ngi taxaw yóbbu addi yi mi ngi taxaw dëj yi dégg nga gàmmu gi koy waajal taxawaay yooyu yëpp te bari na ci loo xam ni kat seen jaayante bopp la ñu koy def ndax kenn jox kenn ñu bari jox kon nag war nañoo mën a ànd def benn say booloo bennoo boole suñu bopp liggéeyal Serigne Touba man loolu maa ngi ciy soñu mbokki talibé yi yëpp ñu maase xam ni kaal li ñu war mooy ñu bennoo suñ saa yu li mu waxoon nañu maase te bennoo te ni Serigne Touba yawa jangam yu mujjii yi mhm. bi mu koy def mënatu ci dara mhm. jom rek ku deg ni mi waxe sax xamni amatul katan gi mhm. ana bis mom day jang ba yàgg mu ah fi mu de néew na dole lol waye duma magal muk seigne touba mu ci magal muk dal di mu uh, di oh. dem ba tollu fi mu tollu téye micro bi di jangal bopam xolal li mu ñu jangal dem ba tollu ci at yi mu tollu ak ci mbooloo di di jang fukk masxul nga li gis léegi murid bo xamni danaka day toll ci ñeent fukki at rek wala mu xaw a rek bëgg def bopp ab ceex ñu bëri woote ak ceex ñu bëri woote ak sëriñ kenn nangootu la wàcc ci terrain bi liggéey sëriñ Tuubaa ñëpp def bu ñëpp nekkee sëriñ kon kuy doon taalibe faw nu xam ne am na yoo xam amul solo faw nu liggéeyal sëriñ Tuubaa te xam ne yoon yi dañ ko war a liggéeyal كان كوتي نيك بري صبر قدي ام يوي قتك ام يوي نيوتي يقول لك صلو نان ليغيل سيغ توبا تي خامني مام شيخ دافال نيوان نا ا يقول لك خوم با خام نيكو شيخ دانا جارين سي باميلم ديت واي اك طالب يقول لك سي باميل سيغ توبا ليم ني دافال ورا نيو جومبانتك ني غوغ في يقول لك ني صول خول لو ني ام موما كون ليغيل بي بون كو داي يقول لك سوخي بالله تغول سي يول مان كي جيغول واي دانيو ورا خول سي كي دبا تول سي ادي يمو تول تي مستا باي عملي صل على محمد وآله وصحبه والمقتدين وليا بأهل حرب العين سلامة من ضر كل عين وسلام عامر Seydina Alou waaye jërëjëf sant nañ bu baax a baax a baax a baax Amadou fii Serigne Serigne Aliou bàyyee ay kàddoom ci daayira yi maanaam ziar bi ñu war a ziar Serigne Cheikh Ahmadou Bamba mhm. topp ci ginnaaw moom sax yàlla dafa defal mu jël ab tànkam mhm. woyafal ko ci te jooju mhm. maanaam di fexe ba bëgg a xam maanaam sax daayira yi seeni taxawaay maanaam nu mu ci tàbbee moom waxul ñoom ñu ñëw sax waaye kenn ku nag la nga nekk ngir sëñ Tuubaa moom dafa am yéene yéene ah. ànd koog yow yéene ànd koog yow bërki démb rek maa ngi ziar baax suñu yaay kooñe Guèye ziar sëñ Modou Xaban ak njabootu kër ga yëpp ak sëñ Cheikh seen daayira mam jaar bi ak ñoom suñu daam gay ñii ñu leen di ziar bu baax baax ak mbooloo mi ko àndal na ñoom góor a seeg ñëpp wax dëgg yàlla keroog bi ma yaay kooño gisee ni ma sëñ làmp càmm da jokkoo nañ maa ngi koy ziar baax waaye sëñ Cheikh Ahmadou Bamba Touré dafa war a ñëw ziar si daara keroog sama xol dafa sedd maa ngi woon ci yittee sëñ Fallu moom sëñ Abdou Sakkoor ndax daara ji fa la yàddee waaye damaa dox ay jéego ba fexe ba sëñ Cheikh Ahmadou Bamba Touré na jokkoog moom jokkoog sëñ si di gajaga sëñ Cheikh Ahmadou Bamba ñëw fa fekk si daayira ba mm-hmm. ngir saafonteeg wajur yi mm-hmm. ak daayira boobu li ñu amee woon taxawaay mm-hmm. seen digganteeg wajuróom ma ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci seenu buntu ci daar kër jàkkay mbir yooyu yëpp nag sëñ Cheikh Amadou Bamba Touré wax naa ko keroog ci bañ dajeeg moom ci ci xaar yàlla ci xaar yàlla ma ne moom yitteem mooy sëñ Tuubaa la bàyyam bu tedd ba doon liggéeyal ci taalibe yi mhm. waaye moom nag bàyyam la bëgg a liggéeyal ci taalibe yi ndax mission bi sëñ Touba tegoon ci loxo sëñ Saliou Touré mhm. ci biir Thiès ci taalibe yi loolee la bëgg a fedd laxasaayu mhm. la bëgg a sakk ànd ak murit yëpp fas yéene cee liggéeyal bàyyam ba am ngërëmum moom sëñ Saliou Touré wala mu dolli ko ay ngërëmum ci liggéeyal bàyyam ci wuy juram ci taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo gerte Thiès wallaay li nga wax euh, sëñ maam dëgg la euh, sëñ Alioune jërëjëfati euh, li may wax rek yow say wax moom ci la ñuy jàngat ba mën a am inspiration xam nga ngërëmal sëñ tubaa deret lay topp. Mhm. Mhm. ku yaakaar ni sëñ Saliou Touré lii mu liggéey nii. Mhm. luy luy luy luy fayleel wala luy dem ab bi diire rek yam fa. wallaay xamoo ngërëmal sëñ tubaa ay setaati setaat sax danaan liggéey danaan taxaw taxawaay bi nga xam ne moom la fi sëñ Saliou Touré taxaw ci yitte. Euh, Cheikh Amadou Bamba Touré keroog ñoo ànd yaakaar naa ci ci jataay bi keroog ba ma koy ba ma koy doon dalal maa ko doon dalal keroog ci jataay bi yëg nañu jéego ji ngay dox di nemmeeku ji njaboot gi fi sëñ Saali bàyyi woon te siqoon ak ñoom mhm. yëg nañ ko waaye sunu xol sedd na ci mhm. di ci ñaanal yàlla na la ci yàlla nga ci am ndam yow tam ñu ngi waaw yow xaaroo ko yow waaw yow ndax keroog rek dañ jokkoo nga ne ma man maag daayira tasawudu sixaar wallaahi wallaahi ñu ngi fas yéene tàkkatoo dem siyaar yi seen siyaar wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi siyaare woon nañ ko benn yoon mhm. waaye incha allah boobu sëñ dir nekk fi woon waaye beneen siyaar dañ ko feneen fas yéene defaat incha allahu rabbi mhm. Mhm. ndax it wax dëgg yàlla ñun nun nun mel sëñ Saliou Touré la dëgg la nun nunu mel sëñ Saliou Touré la lu nu xam sëriñ Saliou Touré la rus ñu koo fenn am na fu nu kër gu ñu jokk mhm. am nañu ay sëriñ mhm. waaye sëriñ Saliou ture moo nu won nu jariñoo ci sëriñ Touba mhm. moo nu won kuy liggéey sëñ Touba nii ngay liggéey sëñ Touba kuy liggéey sëñ Touba jom ngor fit ngay am sëñ Touba loolu moom ñu moo ko jàngal te da ko doon dox di ko def ñu ci teg suñu bët Mm-hmm. ndax dama li ma wax sànq rek ci benn jotaay. Mm-hmm. dafa ñetti tarbiya yëpp la sëñ Saliou àndaloo. day tarbi tarbi tarbiya bil xaal. Mm-hmm. tarbiya bil maqaal. tarbiya bil himma. yooyu yëpp daf ko boole woon di ko doxe ci biir Thiès kenn ku nekk. nanga yaakaar ne bu ko doxalee ak yow nga nga mën a nga nga mën a jëriñ sëñ Touba. sëñ Saliou Touré dina ko jëflanteeg yow. kon nii nga xam ne maanaam lu sëñ Aliou wax. ngir daayira yi Thiès yëpp muritu Thiès yëpp sax laay wax ndax sëñ Saliou Touré. nekk lu fa samba wala daayira wala nanga maanaam muriti sëñ tubaay mhm. génn na Cees sax dem na ba Touba Pekouk dem na ba Wadde dem na ba génn Cees tund jop kenn tourné lañ fa war a def mhm. ñu fe ñu jàppante waat mhm. nañu daan àndeek Serigne Saliou Touré daayira yëpp mbooloo taalibe yëpp àndaat ak noonu ñu tax ci ginnaaw Cheikh Amadou Bamba Touré te loolu nag mooy pay fay naar bi xoromam maanaam ngir ñu xam ne sëñ Saliou Touré kat euh, Eh, war nañ ko delu ñukal moy ko ni to ki mu fi bayyi muy ab mhm. ñun ñepp ñu takato and ci ginaawam wan ko ni ko ni nga ni nu mel de mhm. lu nu xam de ak nu nu mel mhm. sa baye kon ni xam andal mom moy kan rik nanu watandiko te xay te xex ak saytaane xex ak bakkan xex ak aduna lépp lépp mi ngi fi suñ kanam muy xawa nafsi muy ñeenti noon yu mag yooyu sant naa leen it jant gu mat sëkk waaye nan xam ne àdduna it du ab yàggukaay tuuti lees fii am anafu yàggukaay ba mooy bàmmeel kan lan fay jóge bu sun borom di tëkkal àdduna

yenn saa da nga daan ñëw sax ñu ne la këram tey lu fi takk mm-hmm. mm-hmm. dëddu àdduna moom laa gis man dama koy faral di wax fu ma dem def benn sëriñ laa fi gis boo xam ne boo ñëwee këram amul po amul amul rido ba sëriñ Saliou Touré mm-hmm. nu kër sëriñ yeeg yëpp nag laa wax ñu sukk jébbal ak ñeneen ñi ma xamul ak yëpp koo ci dugg na ngay danga kii waaye moom boo tollee ci buntu kër nga seen ko toog tegal la tànkam moom kay moo naan la ñëwal wala mu ne la nii ndeysaan loolu ci dëddu àdduna la bokk dëddu àdduna ci la bokk de xaaloo li yarkan li abwaabi solaatini taxus jawaaisu tuxni kulla ma ini fa qultu xasbi rabbi waktafaytu bihi wa lastu raadiya xayra al ilmi wa diini foofu la sëñ Saliou téré jërëjëf ñu ngi may signalé moom moom moom sëñ bi naxuñu de déedéet déedéet wan nañu sëñ Tuubaa wallaahi wallaahi wan nañu sëñ Tuubaa da ngay xool ni maanaam kuñ indi taraa ngay tourné di la ziyaara maanaam bari na mbooloo moo xamante ni buñ màmmee wuti ab sëriñ buñ ko indilee ay teraange ki ak da leen di reer leneen lay wax ak ñoom lu dul li kaddu yi xool li ci ko jox enveloppe ko jox muy siyaar bi mhm. ca mbooloo ma am na moo joxaat ko ko ne boo demee nga dimbali ko ko demul këram te ko gis kenn ci biir mbooloo mi koo xam ni da xawma ab la moom la jox xaalis ba ne ko am yóbbul boo demee nga nga <laughs> loolu loolu dafa kéemaan tey am na bis tamit mu defal ñu ko ñun waa Thiès li tax waa Thiès sax li waxtaan ñoo tee góorgóorlu soxna wàllu mii ñu ngi koy ziare mboolem taalibe yëpp mi fi yàgg bu yàggut moom Serigne Saliou Mbacké mm. ñu ngi koy ñaan di yàlla tax ñu ko bi fi ñëwee ziar si ko ma fekkee ak njaboot ndeysaan sëñ Seydou maa ngi lay jégalu baax mm-hmm. ah, keroog Sidi Gadja gaa ngi toog ak sëñ Assane mm. keroog sëñ Saliou Touré bi mu nuyoo moom ba noppi dafa dellu ci biir mm-hmm. keesam bi dem jël addiya ju takku def ko ci enveloppe laxas ko laxas ko ba mu jekk mm-hmm. jox ko soxna waalam moom Serigne Saliou seenam liggéey addiya wàccee bi waa Thiès ñoo la ko jox te booba ñu ñi nekk ci biir salle bi xam nañ Thiès joxeguñ dara barki sëñ Touba ci yéeneem la ñu ko joxeele moo moo taxawal waa Thiès moo taxaw waa Thiès la yëkkatee addi jooju ñu ko waa Thiès ñoo la ko ziaree mm-hmm. daal ne ngeen ci yéen kan moo ci yor kaddu ñu ne ko maam góor ci am nii moo yor kaddu bi mm-hmm. waaw ma yëkkati fa kaddu ci kanamu sëñ Sidi Gajaga ci kanamu soxna wàll wala kër la mu fay seede mm-hmm. mooy bu ñu tiitul jàquñu mhm. ragaluñu jaaxlewuñu waaw suñu Cheikh Touré yow moo tax de na la lu ñu am yaa nu ko dimbale keroog seede yooyu laa def ci kanamu soxna waalam waaye nag sant nañ bu baax ci jataay bi bëgg nañu ci lool sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Aliou ah, ndax euh, loox géej la suñu Cheikh Touré maanaam du jeex maanaam bu ñu ci doon fanaan itam bu suba ah, mën nañu lu ñu dugg duñ ci delluwaat te du tax sëriñ bi jeex hmm. ziaru dongo yi ak daara ji ñu ci dimbalee xaafis yi ci génne ak ñi ci génga woon ak moom ba téye seeni doom ak ña mu téewoon te defar leen yi ci feeñ ci ay mbóot ak i kenn xamu lu mu waaye yooyu yëpp tey boo ko jëloon mu doy ay tem waaye nag lu dul doy moom loo ci am rek paat day tey kon xam naa si ñu def jotaay bu kàddu yu mujj pour wan leen maanaam du du daayira yi du caaginu xaalis bi ñuy dajale wala nangam mais nañu yëkk rek ni kii fi sëñ Saliou kii fi toogal sëñ Saliou Touré mhm. war nañ ko delloo njukkal taxawu ko loolu rek la mhm. du caaginu ay dajale ay alal dëgg la eh. ala euh, ziar kuy ziar sa kilifa mhm. war nga ko am la ko jàppale ndax fi ñu toll daanaka yitte taxawaay ba sëriñ Saliou Touré taxawoon ci ci taalibe yi taxawaay boobu la taxaw kon di ko am loo ko jàppalee xëy na dëgg la waaye yëg gi rek moo ci ëpp solo nañu yëg ni maanaam kii fi toogal sëñ Saliou Touré war nañ ko taxaw war nañ ko taxaw bu gestoo seen ñu ci ginnaawam mhm. lool da koy may fit bu baax a baax a baax euh, sëñ Saliou Touré mhm. alal ni mu ko wóodagee dafa am benn bis ndeysaan du ko fàtte mhm. euh, mu ñëw fii ci fiil yi benn cant dafa naa ñoom jattundooy sax ñoo ko doon def mooy wakkaana àqan euh, bi mu waxtaanee ba pare lamp ne ma te yow kon comme que yaay magum taalibe te nga wax ñu dajaleel sëriñ bi njëgu gasoil ndax guddi na nangam nangam ma ne ko ah ma gàntal tuuti nañ ko def rek ndax nañ ko def wala mbooloo mee tas bi sëñ bi waxtaanee ba pare ma jël kàddu gi naka ma tudd ñu dajale ndax ñu jox ko sëriñ bi mu du ko laaj waaye ñu jox ko ko ndax mu defe ko ko dafa ne ma alma alma alma alma du <laughs> laaj kenn dara ka baax maanaam du du alal du solal nit moom sonalul kenn moom Serigne Touba rek la bëgg barke borom Touba yàlla na ko man dama bëgg Serigne Saliou Touré waaw moom koo xam bëgg ko ko bëgg Serigne Touba di ko bëgg macha allah ñu ngi ziar bu baax nag njabootam gépp Serigne Abdou Ahad mhm. euh, Serigne Abou Serigne Xalim Touré mooy woote léegi moo doon woote ndeysaan ak Serigne Saliou tamit di ko ñaana moom tam mbébétam yooyu ak naalam yooyu yàlla na ko yàlla àggale muy maanaam sirul masoon boobu projet bu rëy la boo xamante ne mu ngi fii ci mm-hmm. Njoxaan diggante Njoxaan Pël ak Njoxaan Séeréel mm-hmm. ku fa dem xam ni moom te yéene ji mu am ak pas-pasu liggéeyal baayam eh, yaatu na loolu yàlla na ko yàlla may kàttan gum ko àggale mm-hmm. waaye nag bàyyiwul kenn ba ci Murtada ma nekk Touba ñëpp rek ñu leen di gërëm ci seen taxawaay ndax Murtada mais njabootug Sëñ Touba ga wóolu wóoluwuñ ci kenn ku dul moom mhm. moo leen yor ca daaraam ja internat ci defaruk Serigne Saliou Touré mhm. di defar ci xam-xamu Serigne Saliou Touré di jàngale xam-xam lépp kon war na Cheikh Khadim te itam ñuy ñaana suñu am surtout ak suñu njaboot suñu am laaj gépp nag moom du Mamadou Murtada sama xarit ci mhm. sama wëllëre di sama kilifa di sama lépp ndeysaan keroog ci bis ba bi ñu nuyoo woon rek ba mu see ne ni ma Baye Fall ndeysaan bari na murid yi ma téewaat ni ma yow sax Baye Fall bi nangu naa ko ndax sëñ bi ma nee na Baye <laughs> gu mujj rek ginnaaw waxtu sant sant bu baax rek sant bu baax di sant waa Thiès TV Seydou ñu ngi lay sant bu baax yow it ak ñi nga seqal liggéey bi soxna Roqaya di sant suñu El Hadji Malick Wade bëkk dem bi ñu bëggee émission bi bi ma joxtaanee ak sëñ Xaadim Touré ba ma ko wooyee dañ ma ay ca wool Seydou rek bu kii rek ngeen def ko mhm. Seydou tam sonn na ndax léegi la jóge Tiwaawan ndax xam nga burdu bi tàmbil na ñuy siyaar baax suñu mbokk yooyu nekk ca Tiwaawan mhm. di rafetlu seen taxawaay bu ko defee moom mu jóge Tiwaawan léegi noppaluwul sax mhm. daal di enchaîner bi kon ñu ngi sant bu baax di ñaan lépp lu ñuy lëggal seen Tuubaa yàlla bu mu leen ump adduna ak di sant bu baax na sama kilifa yu baax yi sëriñ Maam Góor Thiam ak imam ma Mahamadou si yéen ay lamp ngeen ci dëkk bi moo tax xam naa ni ngeen waaj nag ma daal li ma leen ñaan mooy gudd fan ak wér ndax yéen sëñ Tuubaa taxaw bi yéen koy taxaw ci dëkk bi mënut a ñàkk ñoo ngi leen di sant leen gërëm suñu xaayum Touré nag mi ngi may woo léegi fi ne maa nga ca barab ba bi ci guddi dañoo amoon réunion jàkkee murit bi bi jeexee la dugg ci bi ne moom barab ba lay màggalee bis bi oh. barab bay ku fa dem fi mu ne daanaka liggéey nañ ko ba yéeme oh. ma jox Seydou vidéo yi